salaamaaleykum wa rahmatullah suñ Maodo Faye maa leen di nuyu di leen nuyu suñ Moussa nga doon waxtaanal ak waa daara ji yëpp waa suñ Maodo théorie bi nag ni Afrique mooy berceau de l'humanité ñuy wax ni Afrique yaa mooy mahrul insaniya loolu nag moom eh, sawaay gaa yi ko wax pour neexal africain yi mais du théorie bu wér de du théorie bu wér de waaw puisque loolu ñu koy wax ñëpp moo ñuy dellu ci nasara yi tasawoo mooy évolution ak loolu ci Darwin waxoon te loolu moom scientifiquement dafa wéru waaw noonu ko Darwin théorisé woon euh, ak xeetu nit yooyu ñu naan ci gorolaw loolu moom wérul puisque li wértu wóor te alxuraan wax ko moom euh, abul basar moom ñun ñëpp xam nañ ne mooy aadam moom loolu moom euh, ak keneen ku mën a wax laneen aadam mooy abul basar te aadam moom wér na ni wàcc tuun aadama inde la wàccoon inde aadama ak ñu njëkk ci kaw suuf te xam na ne ni wàccoon uh, màkk waaw seen lieu de rencontre bi ñu tase waatoon bi aadama wàccee ci jabalu saran bi uh, ci inde xawa uh, wàcc màkka ñi ngi tase ci moo arafa mooy jabalu arafa kon Afrique moom du berceau de l'humanité loolu moom ñi koy wax dañ koy wax noonu rek waaw même ñooñu de ay nit ci xeeti golo yooyu moom dara wéru ci scientifiquement wérut ah moo tax man bëggoon naa xam comme yan scientifique ñoo wax ne xawma euh, kii parce que loolu moom scientifique yi ma xam moom dañoo dàq nazari sa tawur mooy évolution te sax gën naa sori yooyu ñuy wax parce que ci ay wallax njaan ak ay gësit euh, ak goreelaak eh, dem ma doon ay dàngin ñëw feeñ ci àllu Tanzanie bi loolu moom scientifiquement wérut diini yéen wérut nit ki yàlla njëkk bind ci kaw suuf mooy aadam waaw yonent bi tamit wax na eh, bu dee ci ni nit sosoo eh, ginnaaw délif bi tuufaan bi ci nit ñi jaare bin sañcee xariyatu samaan yi ci yaman ak nin juge waatoo ñi soqikoo ci xaam nga xam ne mooy meññ ñi ñu ñuul ñi yafis meññ asiatique yi saam meññ arab yi ak euh, juif yi loolu yonent bi wax na ko ci lu wér mais bu dee abul basarul awwal moom mooy aadam te aadam li wér te wóor li gën a wér mooy Inde la wàccoon te Inde ci Asie la bokkoon Afrique mën ta nekk berceau de l'humanité waaw loolu moom damaa ko mut <laughs> loolu ay théorie la yu ne wax nii rek waaye li wér te wóor mooy Afrique moom du berceau de l'humanité moom waaw beneen bi mooy euh, bu dee ci wàllu kii nag nit ku ñuul moom même Adam Adam alayhi salaam nga xam ni euh, alquran moom li wax moom fa waxee yam mooy que ni Adam moom mooy euh, abul basar boroom xam-xam yi warante nañ ci kulóoru Adam ñi wax ni nit ku ñuul la woon waaw am na borom xam-xam yu ko wax ni dañ ko tuddee Adam mu jugee ci maanaam udma maanaam ñuul euh, am ñu ne ñu ngi ko tuddee aadam ndax euh, dañ ko bind ci adimul ard mooy kaw gi noonu rek même loolu tamit scientifiquement boo demee nit di ko composé mooy euh, boo xoolee yaram bi ak composants yi nekk ci kaw suuf scientifiquement day wér day fekk ci alxuraan yàlla wax ni moo bind doomu aadama ci suuf bindu ko ci ban du ko ci ndox même composants yi la Euh, te tey foo dem ci àdduna bi boo jëlee euh, ay échantillon ci suuf boo xoolee danga gis nu correspondre ak euh, bindu doomu aadama aadama moom am na kon ñu wax ni nit ku am ñu wax ni en tout cas loolu ci di ci ci wax yu bari bari yoo xamante ni am na ñu ko wax am ñu ne nag dañ koo tuddee aadam mu jógee ci ngir li ko bind ci adimul ard mooy kaw suuf si noonu rek Euh, mais lu ci man di xew daal mooy euh, Afrique moom Afrique euh, li gën a wér ci wax yi doon nag am na yeneen wax mooy aadam moom yàlla bi leen bi ko yàlla wàccee moom ak xawa ak iblis aadam yàlla nga ko wàcce woon Inde xawaa yàlla wàcce ko ci jidda wala makka am na sax ñu ni Euh, baatu Musdalifa foofu ñu tase rencontré woon noonu fi la jóge am ñu ni ñi ngi tase ci kii bi ci Arafat euh, jour bu ñu fa tase woon nañu wax yow mu Arafa euh, yow mu Arafa montagne mu ñu tudd ko jabalu Arafat waaw sëriñ xat fàkk sëy maa ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax xaw naa la këj a dégg waaye maa ngi lay ziyaara bu baax waaw li nga wax de bon en fait waaye bu dee ci diine de moom wax dëgg yàlla maa ngi yow dañ ci daal di bokk taxawaay bokk ci pas-pas ci aadam en tant que croyant en tant que ko xam ne kii maanaam gëm nga yàlla ko yonentam bon loolu moom lañ ci ni ñu ko théoriser noonu nga ko waxee dañ ci daal di ànd mais euh, li ci xaw a doy waar xaw ma sax doy na waar xaw ma doyul waar mais scientifique yi ñoom dañoo wax ne parce que man li ma ci jot a xam daal xam naa ne ki ñu tuddee homo habilis homo habilis lañ koy wax wala habilis nga xam ne nekkoon na deux virgule quatre million d'années wala un virgule six millions d'années euh, Afrique de l'Est ci penku Afrique bi nii euh, ni nga xam ne Afrique de l'Est bi maanaam boori Corne Afrique bi ñu ne foofu la jógee même sax ñoom scientifique yi parce que xam nga dafa am archéologue yoo xam ne doon gas ci biir suuf si di xool forme crânienne bi maanaam bopp bi sax dañoo waxoon ne six cent centimètres cube la ñu ne kon nag kii forme humaine la yore bopp nit la alors euh, scientifique yi foofu nag ñoom dañoo wax ne xam nga nature bi maanaam tabia bi Euh, tabixa bi moo moo jiitu doomu aadama ci kaw suuf léegi nag même homo sapiens euh, sapiens boobu ñuy wax sax dañuy wax naan ñoom euh, mënaguñu woon a wax wax ju leer ay signaux lañ doon def wala ay cri léegi nag ñoom bi ñu defee archéologue yi bi ñu gasee ci biir suuf ba fab yax yooyu comme carbone 14 boobu nga xam ne Cheikh Anta Diop créé moo ko moo ko moo ko moo ko gën a harmoniser C14 lañ koy wax tam nekk fii ci université Cheikh Anta te 86 bi Cheikh Anta Diop génne àddina américain yi ñu am luñ ci sàccoon sax ba dajji woon béréb yaag yooyu xëy na am la ñu fa doon seet alors euh, C14 boobu yax boo ci boo boo jëlee benn yax ci biir suuf si boo ko ci dugalee daf lay jox datation bi daf lay jox at yax bi ñaata at la am alors datation yooyu nag yu bëree bëri nañu wax ne lom nit gën na ci kaw àddina ay nangami million même aadama moomu sax waxuma nag ci diine ci scientisme lay wax ci ci aadama moomu sax am na ñu wax ne est-ce lu ko jiitu ay doomu aadama ko jiitu mais bon scientifiquement loolu nag moom wax dëgg yàlla xaw naa doy xam nga science moom si xat fàkk ñaare am na fu muy fu muy dëppoo ak léeg-léeg ak diine waxuma l'islam nag diine en général sax laay wax ndax am na ci yenn diine yoo xam yenn yi yoo xam ne léeg-léeg ñu wax ay xam ne dana xaw a nuroog loolu maanaam science ak diine léeg ñu dëppoo léeg-léeg également ñu tàqali ko wuute wuute yu yaatoo yaatoo yaatu waaw abul bachar adama kooku moom ku gëm yàlla comme yonentam da nga koy gëm comme ni nga ko gëmee ma gëmee ko noonu Euh, mais ñi ñiy wax lii ñoom xam nga ñoom yaa ma leen gën a xam ñoom ay c'est ay archéologue parce que man maa ngi gis rek euh, benn documentaire bu ma doon seetaan ci benn télévision euh, ci Chine ci seen miraay boobu ñu nekk foofu la ci fu ñu doon gas foofu ñu gis benn yax boo xam ne bi ñu ko dugalee ci benn machine de datation bi dañu wax ne yax bi am na trois millions d'années sur terre am ñu ne àddina nekkoon na fi lu yàgg yàgg yàgg ay être humain doon fi dund ak yu demee noonu xëy na tamit loolu euh, suñu mbiru borom mbiru suñu borom la mais de toutes les façons diine lii la wax scientifisme lii la wax léegi nag euh, <laughs> mbir bi daal mu ko ku nekk koy déggee. asalaamaaleykum oustaz Fat Fak ñu ngi lay nuyu baax di la siyaare la siyaare oustaz Maodo Faye alhamdulilah waaw man nag xam naa amoon naa benn laaj maanaam aadama ci kaw asamaan la nekkoon. Mm, fa la nekkoon daal ci kaw asamaan kon àjjana dafa nekk ci asamaan àjjana ji nga xam ne nii fa la yàlla dugaloon aadama ci kaw asamaan la nekk euh, comme li yàlla wax euh, ihbitu ba'dukum li ba'din aduw walakum fil ardi mustaqarrun mataaun ila xiin waaw damaa gis euh, alquran waxaat beneen ihbitu ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum maanaam ñaari ihbitu yooyu te yàlla ba muy wax Moussa ba muy wax nitam ñi naa leen wàcc leen Misra euh, ndax boobu wàcc gu bokkut ak wàcc ak euh, ihbitu ba'dukum li ba'din aduw damay gisaat ci alquran yàlla waxaat ne minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taatan uxra euh, ci kaw suuf maanaam suuf ci lañ ci la ci lañ ci la ñu yàlla bind ci la ñu yàllay delloo ci la ñu yàllay génne ndax kon doomu aadama mas naa teqalikoog suuf daal mas naa teq maam aadama ba ci comme ñun ñii ndax mas nañoo teqalikoo ak suuf kon àjjana ji fan la nekkoon daal loolu ba tey ab laaj la daal euh, ba tey bëggoon naa xamit aadama ban làkk la doon làkk làkk wi aadama doon làkk ban la waaw ak it euh, jamono yi nga xam ne moom la ñu wax ne ci la aadama ñëw ci la aadama wàcc ndax di téere diini andi nañ ko daal jamono yi nga xam ni maanaam at yi nga xam ne moom la moom la am boobaak léegi ñaata at la ci la aadama wàcc euh, ndax euh, téere diini yi ci bëree bëri daanaka wàllu population yi daanaka euh, duñ ko gën a leeral daal taarix bi li ci ëpp ci yonent yi lañuy dox dañuy wax léegi nag bëggoon naa xam daal digg ñun suñu diggante ak aadama ñaata at la comme scientifique moom li muy wax xam nga day ëpp day day bëri lool ci ndax méngoo nañ wala méngoowuñ daal waaw diggante aadama ak ñun ñaata at la war a toll. waa si Moussa Ka maa la nuyu di la ziar baa ngi jàmm alhamdulilah waaw eh, yonte yàlla Adam de moom buñ xoolee ma fu mu Quran eh, dañu jàpp ni Adama ci kaw la nekkoon puisque xam nga bala nga wax eh, Adama ci. comme àjjana ci kaw la nekk ak ci suuf xam nga yàlla mi ngi digg àjjana joo xamante ni euh, arduha ka ardi samawati wal xam nga kon <laughs> àjjana jooju mu ëpp asamaan ak suuf xam nga kon mënoo qualifier àjjana jooju ndax ci asamaan la nekk wala ci suuf ndax moom euh, àjjana mën na ëpp asamaan ak suuf beneen bi mooy euh, boo xoolee aadam ci kaw la nekkoon ak malaayika yi Euh, ba ci sax euh, baytal maamuur bi nekk ci kaw malaaka yi daan ko wër bi ko yàlla wàccee mu ñaan euh, yàlla may ko néeg bu ay sëtam di wër comme ni malaaka yi wëree baytal maamuur nga xam ni kaaba gi dafa dafa dafa tolloo ak point bi baytal maamuur nekk ci kaw kaw asamaan waaw ba ci point bi ñu koy wëree euh, kawaake bi di ni wëree euh, yooyu yëpp dangay gis ni mu ni mu ni mu correspondre léegi beneen bi mooy aadama euh, ban luxa la daan wax loolu boo demee tamit xam nga xiilaak xiila xiilaak xaalay ulama yi dafa bëri mais li wér mooy am nañu wax ni aadama luxa yëpp la daan wax waaw wa allama aadama asmaa kullaha nga xam ne usulu luwa yëpp aadama wax nañ ni xamoon na ko euh, doon naka dana wute ci diyaan diyaanaale boo demee ci aadama ban luwa la daan wax mais li wér mooy adama moom euh, wa allama aadama asmaa kullaha maanaam xam-xam yëpp ak làkk yëpp la ko yàlla xamaloon waaw léegi nag beneen bi mooy aadam euh, pour dellu si ci wax ji doon wax comme gëm nañ ni moom mooy euh, abul basar al awal léegi nag euh, loolu sin Maodo doon junj ci waa sin Maodo maa lay nuyu di la ziar xam naa loolu nga doon junj xam nga euh, loolu débat boobu day posé lu bëree bëri fan yi rek ci mujj maa ngi diglu kii religion du monde bi am RFI ci débat seen euh, entre euh, scientifique yi ak les religieux euh, c'est que bi ñu bëri def kenn ku nekk da ngaa am objectif bu la tax a jóg diine diine bi fi am ma ah, ñëwul ngir jox ko yenn zawahir tabiya yi ay ay tafsir doon tax bu ñëwee alquranu karim moom dana am aaya xam ne day laay ci wàllu no bi talim ciy wax ba nii may wax ak yow du lu science mën a dindi waaw loolu sax d'ailleurs moo tax yenn scientifique yu bëri euh, dem ba jaar ci convertir wu ci l'islam ñi ci des it bu dee dugguñ ci l'islam it xam na ni ay lay wen mooy diina ju wér ku demee ni Maurice Bucaille nga xam ne moo bind euh, alquran wala injil euh, wa tawraat waaw injil tawraat wala quran wala ilmu dafa dem ba découvrir xam ni alxuraan nag mooy téere boobu ci nii mu mu bi mu ko màndaxee science xam na ne alxuraan rek mooy téere boobu ci nii mooy téere bi valable pour ni dafa jóge ci yàlla ngir amul ay contradiction yoo xamante ni euh, science day ñëw di ko di ko di ko dàq maa amul lenn loo xamante ni science day ñëw di ko dàq ci alxuraanul karim wala bokkoon science dafa yeggagut kanta loolu ngay wax xam nga wér na ni euh, am na yeneen bindeef yoo ci dingay yooyu dañuy doomu aadama yooyu ñoo jiitu doomu aadama ci kaw suuf mais loolu sinon du mënu ko parce que aadama moom mooy aadama ay doom lay tuddee doomu aadama kon avant aadama doomu aadama amutoon waaw xam nga euh, li ñu wax ci kaw suuf ni dinosaures yi ñoo fi jiitu ba ci góore yi sax euh, golo yi yooyu amoon na mais yooyu du ñu ay nit du ñu ay nit loolu moom du ñu ay bu ñuy wax nit basar ah basar nit insaan bi nga yàlla daf ko bind ci ban ndox ak euh, composant suuf yu yu wuute euh, loola moom ki ci yàlla njëkk bind mooy aadam euh, bu ñu wax nit nag ñun kon être humain nit wala nit insaan ci luxatul quran Euh, wala basar kooku moom aadama la ci yàlla njëkk euh, bind te li gën a wér ci wax yi mooy aadama yàlla mi ngi ko wàcce woon ci Inde euh, wàcc xawaa fii ci Arabie Saoudite am na sax ñu wax ni seenu tase Musdalifa mooy tase istima tase Musdalifa la tax ñu tuddee ko loolu ñu tasewaat fee tamit nu mu tuddati Arafat ñu tuddee jawal bi jawalu Arafat te li gën a wér moom mooy aadama moom ci mu jëm euh, mi ngi doon dund fii Màkka kii nekk Kaaba gi ba ci boo xoolee lu ci bëri histoire xajarul aswad ah, euh, ak euh, lu bëree bëri ci sha'airul hajj yi comme ni ko gisee mu jugee ci jeexitalu ay yonent aadama moom day wér ni foofu la doon dund ba ci montagne bi njëkk ci kaw suuf mooy jabalu abi xubay ca xaaru sand foofu lan ko denc que avant avant avant délif bi euh, foofu lan ko dencoon euh, bi délif bi ñëwee yàlla digal euh, noox mu génne kooru aadama dugal ko ci kii bi dugal ko ci gaal gi ginnaaw bi délif bi jàllaatee tamit Euh, mu daal koy dugal foofu mu nekkaatoon muy xaarul euh, kan de ci jabal abi xubay si ci màkk kon aadama foofu la doon te aadama mooy nit ki njëkk kon Afrique moom c'est que euh, a xëcc ci xaj na histoire Afrique Afrique am na histoire bu riis macha allah waaye taxul nag ñu ne moom Afrique mooy mahdul basare mooy berceau de l'humanité loolu moom wax la joo xamante ni wax dëgg yàlla xam naa gaa yi ko wax noonu rek waaye defe naa kii <laughs> salaamaaleykum wa rahmatullah seen eh, xaarim Thiam maa lay nuyu bu baax di la ziyaar di nuyu waa Ina Dina di la isaan gépp di jégalu bu baax nag ci yéex a kii eh, ñëw ci sa laaj bi waa eh, Adama comme leen waxoon démb ni li gën a siiw ci wax yi dañoo wax ne Inde la wàcc bu ñu waxee li gën a siiw ci wax yi nag doon da am na ay benn benn wax waaye ci ay boromi xam-xam. doon nag alxuraan moom addu carrément ci aadama fan la euh, yàlla daa wax na rek wàcce euh, wàccee na ko euh, waaye boo demee bëri na ay boroom xam-xam yu ko wax ci ay téere ba ci sax boo demee ci ay kutubu ahadis mais doon nag am nañuy tariifal ahadis yooyu wala nga dem ci kutubu tafsir wala kutubu taarix yi indi dañ ci lu bëree bëri boo demee ci Euh, tafsiru tabari euh, moom indi na ko ah. euh, ibnu batuta ci am na téere muy tuddee rexlatu ibnu batuta moom indi na ko fa soo demee ci téere yenn ahadis yi saxiixu ibnu xusayba indi na ko mooy bi wax xaddasanaa abu xaasim hmm. waxu mawlaa ibnu abbas ba indi wax jim ci wax kutub tafsir yi al jaama jaamul bu xurtu bi ak tafsiru bahrul muhit bu dee ci téere taarix tamit alkaamil fi taarix euh, ak taarixu yi ba ci muxaddimatu xal xaldun indi na ko ci ci ci ci ci muxaddimaam ak euh, ay borom xam yu bari yoo xamante ni li gën a lëng ci leen wax mooy ni aadama yàlla mi ngi ko wàcce woon euh, Inde ba nettali sax fi mu jaar ba ñëw ba giseeg suñu maam xawaa mi nga xamante ni moom mu ngi wàccoon fi Arabie Saoudite nekk tey tan tase ci euh, arafa yooyu ay wax yu bari la yoo xamante ni day gën a firndeel wala day gën a dëgëral ni aadama yàlla mi ngi ko wàcce woon ci ci ci ci Inde ci jabalu Sarandib waaw waaye li ma bëggoon a foofu daal moo di ni moom Afrique moom Afrique daal lu berceau de l'humanité ndax li wér ci alquran ak kutubu euh, kii téere yi wax ci diine yëpp même yeneen diine yi loolu lan saxal ni aadam mooy abul euh, basar te avant aadama di ñëw amutoon lu ñu tuddee basar lu amoon doon te jinne amoon na te jinne moom <laughs> du bokkut ak euh, insaan waaw jinne yi ñoo nekkoon ci kaw foofu di yàq ah, ba yàlla bëgg a euh, bind bind bind doomu aadama gis nga sax laa yi ci leen doon référé woon doon wax yàlla ndax da nga fi wàcc ñoo xamante ni dañuy yàq ndax jinne ñoo fi nekkoon di di yàq waaw euh, wallahu alam jërëjëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ci inna diina inda laal islam yëpp ñoo ngi leen di nuyu euh, lu jiitu ñu ngi nuyu suñu Cheikh Lo di jiital nuyoo di ci teg sëñ Cheikh Diop di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekk sëñ Moussa Ka ak euh, sëñ Aliou ak sëriñ Mbow ñu kenn daal ñu ngi nuyu ñëpp ah, bu loolu jàllee nag yàlla dafa bindoon ay mbindeef yu ñuy wax alxinnu alxinnu alif laam xaalon ku nuun musaddada nuunun musaddad maanaam alxinnu ñooñu la yàlla bindoon fekk boobu malaaka yi nañ nag lu jiitu loolu alxinnu nekk ci suuf si ba yàq fu yàq goo xam ne mbindee mosu ko fee yàq yàlla daa di leen fiy jëlee indiwaat yeneen mbindeef yu tudd albinnu albinnu alif laam baa nuun binnu yi nekk fi ñoom itam ba yàq fu yàq goo xam ne Eh, kenn mënu koo misaal yàlla jigal jëlgal digal malaaka yi ñu tukkal booba àddina ak yoo yooya xeeti mi déef indiwaat fi beneen xeet xeet woowu tudd al jinnu al jinnu alif laam ñu nekk fi nekk fi nekk fi nekk fi ba yàq fi yàq koo xam ne kenn mënu koo misaal yàlla ba malaaka yi ñu tasaare leen maanaam rëyu ñu ba ñu jeex ngeen jéggaluñ ci dog dog boobu ba yàlla alakee alxinnu indi fi albinnu bam alakee albinnu indi fi aljinnu bi mu alakee aljinnu nag reyu leen ñoom ñépp ba ñu jeex dañ leen a songub xeex ñu tasaaroo ñeedee ñee daw dem ci jazairul bi aar ñii dugg ci xunt yi ñii dem ci ay lëbi suuf yi ndax suuf si am na lëb yu ngeen xamut boo demee ca fa ñuy nga xam ne suuf si am na ay lëb yu ngeen xamut yoo xam ne ay jinne fa nëbbatu ji fu xunti nekk ci àddina jinne yi dem nëbbatu ji foofu waaye nag dañu ñuy gis ñoom te ñun duñu leen gis waaye jeexuñu ñu ngi fii mhm. jeexuñu ñu ngi fii yàlla remplacé al insu al insu ñu daal di koy indi al xinnu moo fi jëkk al binnu moo ci topp al jinnu topp ci al insu moo fi mujj loolu boo demee ci taarix yu yàgg yu ko cay fekk même boo duggee ci internet bi sax da ko gis awalu man sakkanal arda xabla xalqil xalqi xalqil insaan soo ko bindee danañ la ko woon awalu man sakkanal arda xabla xalqil insaan boo ko duggee foofu di fa di nga fa fekk loolu léegi nag <clears throat> ma ci maam Adama maam Adama téere yit buñ àndoon ne Inde la wàcci wàcciwul Inde addis bu wér bu wara ne Inde la wàcc amut maanaam addition yëpp ay israiliyaat la rek waaye du addis yoo xam ne mel na ni bay na maana nu juluusun inda rasulillahi istala alayna rajulun sadidu bayaadi siyaabi sadidu sawaadi sha'ri la yusa alayhi sabar wala ya'rifu minna ahad melu ni addis boobu ay nettali ay wax num wax bu mun wax ak ay ñooñu rek borom xam-xam yi jiitu yi la addis buñ jëlee ci bi boo xam ne dafa wér maam Adama wàccul Inde Afrique mooy berceau de l'humanité maam Adama wàccul Inde Afrique moo di berceau maam Adama dëkkul woon Inde musu fa dëkk maam Adama dëkk bi mu njëkk a sanc ci àddina yaay loon la tudd demal ci tuxfatu nazirin bi man wala al misr min al mulaati wa salatin da ngay fa mu la wax soo gisul tuhfatu nasirin directement seetil futu usham lil ma nga ca xaamisu futu usham lil waaqidi di nga ko fekk maam adama kaaba gi la doon wër ba riir ba dem Inde waaye wàccul Inde maam adama yaay luun la njëkk dëkk boo demee ci tufatu nazirin da ngay gis li ma wax yaay luun mooy fii Égypte nekk léegi tund woowu moom lañ doon wax tundu yaay luun maam Adama ma ma maanaam euh, maam Habil fii ci Afrique lañ ko suul ndax fii la deewee ba fi jógee la dem sanc dëkk bu jógee yaay lool la dem sanc dëkk bu ñuy wax aden aden raafut ba léegi turwa sëppekuwul ba léegi mooy aden gi ngay xam ci yaman ba mu jógee aden mu dem sanc jidda jidda nag amoon na tur wudul jidda waaye dañu faasuwul maam Adama maam Awa dem naa ba tiim bàmmeelam maam Awa man ci samay ñaari loxo sama ñaari tànk yii di wax ak ma maam awa dem naa ba tim ko guddi na ni potlamp nag ca ca lañ ko wanee waaye américain liñ ko mujj miiree tëj bi ñu dëkkee jidda nag maam Adama plan bi yàlla wàcce woon kaaba gi ci asamaan moom la doon wër di ko topp ba dem foofa di ko wër di ko topp nag ba foofu gëlëm dem ba Inde nekk na ci àll bi lu yàgg nag di witt di lekk maam awa nekk ci kër gi ak gone yi ci jidda maam awa nag saa yu bëggaan a wëri maam aadama day topp fi aadama jaaroon waaye su demee ba ca ab jébalu arafa moom dootul mën a continuer dina fa nekk nag lu yàgg naan aadama daal topp naan tànkam bi ba fii ci àll bii dama riire waaye bu fa nekkee ba yàgg mu jóge fa day ñibbiwaat jidda maam aadama it day jóge saran diib Euh, ca Inde comme ni ngeen koy waxee di wër di wër ba ñu foofu ci foofu ci Makka bu dikkee gis ci am xunti gis fi ay daj tegale gis fi organisation bu ko defar am néeg daal mu ne lii daal kenn rek ko war a def mooy awa awa rek ko war a def waaye keneen kuy def lii amul ci àddina bi waroon nañ fa ay yoon maam aadama mas na faa ñëw sax maam awa gis ko nekk ca xuntima waaye génnul teeru ko lu may nekk foofu di das ba ma ba maam Adama demaat te ko léegi ba leen yàlla naree boole ñu dajalee waat maam awana bu fa nekkaat lu yàgg day delluwaat ca gone ya day delluwaat kër gu mag ca jidda ba mu léegi nag léegi nag léegi nag ba yàlla naree ñu daje ñu daje fa nag dafa njëkk a ñëw wër wër ba sonn dugg xunti moom a toog maam awa ñëw nag di wër buy wër nag day yéeg ca jabalu ca jabalu ba ca jobota la mu taxaw fa nag di jiir ba ko maam Adama séenee rek mu daal dawe sa xuntuma daal di yéeg rek daal di songo ko ne ko ay awal maa ngi lay door ak gis ay li ma la wër mu ne ko yow yaa yow nga wàccee sa wàcc ma wàcc sa njaboot ne càll bi nga naa li nga ma wër ma man yaa ma doon waaye man wëruma la <laughs> dégg nga léegi looloo indi baatu arafa foofa lañ xamantee ñoom ñaar ak réeroo la woon foofa la xamante ga amee waaye maam Adama wàcculoon Inde Afrique la wàccoon ci dëkk bu ñu ba mu wàccee Afrique itam ci dëkk bu ñuy maanaam dëkk ba mu njëkk dëkk mooy yaay loon moom la njëkk sanc li ci topp mooy maam Adama kenn bindewu ko asamaan wàcce wu dal ci suuf fii lañ ko bindee fii la dundee fii la deewee fii lay dekkee fii la yomal xiyam li amee amul benn aaya buy wone ne Adama asamaan la wàccee amut loolu moom maa ngi koy laaj nit ñi Adama fii lañ ko bindee fii la deewe fii lañ ko suul naga xar ak bëy ak ginaar ak yi ngeen di gis yépp fii lañ leen bindee fii lañu dee fii lañ leen suul waaye Adama wàccewul asamaan ñu yor ci buum moog maam awa ñu ne ndutt fii ci suuf loolu moom amut bu ngeen demee ci tuufatu naasir nag da gis lu gën a leer li ci lima leen di wax ndax dugguma ci biir ba xóot waaye ba ñu raaj gisantee ba noppi léegi nag la maam Adama door a seetlu foofa xam ne waa di xiraa awalu baytun mu ali naas fii la waaw maa ngi ñëw mu daal di koy mu daal di fay samp kaaba gi muy plan bi nga xam ne moo tolloog baytul ma'mur bu nekk ci kaw asamaan ba loola amee nag mu daldi am léegi yayluun am aden am dëkk bi ñuy wax jadda am fa ñuy wax bakkata muy foofu mu dëkk eh, foofu mu nekkoon foofu la maam Adama jóge nag dem sañ ci kuusaan kuusaan mooy kóosi moo mujj tudd kóofa mooy kóofa ga ca Irak maam Adama bi muy génn àddina koosaan la fi bàyyi ak jëbalu faaraan muy Makka ak fi ñuy wax Jadda léegi ak fi ñuy wax Aden ak fi ñuy wax yaay luun dëkk yooyu ñoo amoon ci àddina bi bi maam Adama di génn àddina te ñu fi nekkoon ñëpp ay doomam lañu yaay loolu gi nekkoon misra nag daa mujj na raaf ba kenn dëkkatu fi maam Adama ba muy génn àddina dafa wax sëtam bu ñuy wax siisa ndax siisa Adama dinaa leen ko seetal waaye daa mel ni am na ko dox seen diggante ñoom ñaar euh, euh, daa wax siisa ne ko na nga dem sant sant jiwaat foofa siisa moomee sanc siwu ko waa dañoo dem ba jamono Idris mooy xaanuuq Idris moo ñëw sanc si foofu ah, mbanaari Égypte yi ngay gis mu di ay ay ay ay ay pyramide ñu ne pharaon yi ñoo ko tabax sax am na ñuy wax ne est-ce que pharaon yi ñoo ko tabax ndax Idrissa moom ba mu dikkee dafa dekkalaat yaay lool ba muy ñëw indiwaale na siti xaabil yi yim jotoon na am indiwaale na itamit ñi nga xam ne ñoom la maam abil am ndax nit ñi dañoo yaakaar ne maam abil daa takk xaabil rek eh, ma daa takk rakki maam xaabil rek mu ne ko ci saasi déedéet yàgg nañu loolu di tourné ci boppam boppam maam xaabil bi mënu koo talore am na diir boo xam ne am nañ ko ba xam ne sax maam Habil am na fi ñaari ëmb te ëmb bu nekk ñaari doom la muy ñeenti nit euh, maam Habil dool ko rey léegi nag maam Habil dafa amoon ay sët maam Habil dafa amoon ay sët te maam Adama amoon na yeneen doomi dul Habil ak Habil yi itam am ay sët bi nga bi bi xunux di ñëw nag di sañ ci siwaat yaay luun dafa jël ñaari askan yëpp indi ñi jaam ñi càllaloo ci Habil mi tàllaloo ci xaabil ak moom mi tàllaloo ci aadama direct te jaarul ci xaabil ak abil ñu dikk sañcaat yaay luun googu tey yaay luun googu tasaat na fi bim tasaatee ba jamono yonent yàlla noohin yonent yàlla noohin ba muy génn àddina dafa waxoon uh, maam haam ak saam ak yaafus ne leen da ngeen déclarer sunu dëkki maam yi amoon ci àddina bi na ngeen dekkal ma euh, jabalu Faraan muy Makka na ngeen dekkal Jadda na dem dekkal Adan na dem dekkaali yaayi luul léegi nag maam Haam sëtam bu ñuy wax Misrayim moo ñëw dekkal ci Misra moo tax ñu tudde ko Misra sëtam bu ñuy wax Fuuta moo ñëw de moo ñëw dekkal ci Yaman dëkk ba ñu tudde ko Fuuta ca Yaman dëkk sëtam bu ñuy wax Koosi moo dem moo dem dëkkali Éthiopie ñu tuddee ko Éthiopie Habasha waaye dinaa ma si ñëw ci loolu waaye li may xamle daal mooy maam Adama wàccewul Inde Afrique gii la wàcce te maam Adama bindewuñ ko asamaan ci suuf lañ ko bindee bu dul jaaro daal xaw ma fan la waaye ci suuf lañ ko bindee xam naa nag coow dina ci bari lool waaye na ngeen gëstu bu baax Afrique mooy berceau de l'humanité nit ku ñuul moo mag ku xonq te fii lañ njëkk a dëkk léegi nag askan yi am ay yonent ñoom la seen càlla la feeñ ndax yonent ya askan yi amut ay yonent mënees la leen a wax ñi ñu jur waaye seeni càllala feeñu adama siisa siisa anuus ndax anuus siisa ko juróom déet déedéet waxuñu loolu aadama daal mooy premier koo xam ne dañ koo napp mooy ku amuk nubuwa siisa moo ca topp anuus moo ca topp xaynaan moo ca topp maalil moo ca topp yaarit moo ca topp idris moo ca topp mooy xaanuux aw uqunuux matu saalix moo ca topp laamik moo ca topp nuuhin mooy premier yonent wala xat arsal naa nuuhan waaye ñi def ñëpp ay anbiya wala ñooy ab rasulu amu ca nuuhin moo jur saam ak haam ak yaafus haam moo nu jur ñu ñuul ñi kenn bindaluñu dara saam moo jur arab yi ak ñu xonq ñi ñaari doom la am iram ak arfakshad iram moo jur aywas aywas moo jur giiru aat aat moo jur giiru ko huut iram amoon na jeneen doom ju bokkul ak aywas te moo di jaasir jaasir moo jur samud samud moo jur saalih ci giiru samud la saali bokk nga yéegaat ca saam saam dafa amoon iram am arfakshad arfakshat moo jur xaynaan moom xaynaan xaynaan saalih saalih bisin mojam saalih abir abir falij falij rawu rawu saroj saroj naur naur taarix taarix mooy bàyyi yént yàlla ibrahim loolu waa ji doon wax naan ibrahim ki ngeen di wax du baayam wax na bayam du baayam bu doon baayam du li abihi azara lu ci teg baat boobu li abihi azara li tax mu ne azara day bàyyi taxam waaye juru ko dëggantaan azara jurut jurut jurut jurut kooku jurut ibrahim taarix la la tudd taarix nag dafa jur ku ñuy wax naaxuur ak ku ñuy wax ibrahim ak ku ñuy wax haaraan haaraan haaraan moo meñ yàlla lóot ibrahim moo jur isaaq moo jur ismail isaaq jur iiso moo jur yaqub iiso mooy maami yonent yàlla ayoba mooy maam yonent yàlla sulkifli yaqub moom dafa am soxna si tudd rail am ca yusuf ak benyamin am soxna si tudd salfata am ca jadd ak ashir am soxna si balata am ca naftali ak wa daana am soxna soxna si tudd layatu am ca raubin yashakir zoboloon samoun laawi yausa kon Yaquba ji ko yor ñetti jabar ñeenti jabar yaa ngi dégg léegi nag Yusuf Benyamin Yusuf mooy maami Ilyasa Benyamin mooy maami Yunus ñu dem ci Laawi ak Yausa Laawi dafa am Yashjur Yashjur mooy maami yonti Yàlla Shaib yash jur mooy maam yonent yàlla Moussa laawi dafa am doom ju tudd Faid Faid moo jur Amran Amran moo maamu Haarun ak Yaasin ak Ilyas ak Yaqub ak Yusuf an Najjar mi ngeen doon dégg Yausa mooy maamu yonent yàlla Daawuda ak Suleymaan ak ku ñu wax Yushaqit Yushaqit am na Yuram am na Salum Yuram moo jur moo jur imraan ku njëkk ka amraan la ku mujj ki imraan la imraan mooy bàyyi mariama mariama mooy yaay yonent Yàlla isa yushaqit am na salum salum moo jur yohanal muhammadani min daan wax min daan wax moo jur zakariya moo jur yaxya noonu la càlla la demee foofa boo demee ca ismail Ismail dafa am naabit naabit maam la ci Yasjub waxuma ne da koo jur de maam la ci moom laa wax Yasjub moo jur kilifa gu tudd Yaarib Yaarib mooy maami ku wax Yatrax Yatrax mooy maami Naaxuur ak giiram Naaxuur mooy maami Muqawam Muqawam ca moo meññ Addin Addin moo jur Adnaan Adnaan nag daa jur ma Addin directement mu jur Nizaar mu jur lu ay mu jur. Eh, kaabu mu jur mu jur murra ah, ah mu jur lu ay mu jur xaalib mu jur fiir mu jur malik mu jur nadar non lu ay dafa jur maat dafa jur nisaar nisaar jur mudar mudar ilyas ilyas mudrika mudrika xusayma xusayma kinaana kinaana nadar nadar malik malik fiir fiir xaalib xaalib looy looy kaabu kaabu murra murra kalaab kalaab xusay xusay abdu manaf abdu manaf asim asim abdul mutalib abdul mutalib abdoulaye abdoulaye muhammad noonu la jujjuraale ba demee ndax koo ci tudd nag moo jur moroom ja loolu moom mi ngi wéri ci diggante addin ak addanaan ak ma add ak nisaar jëm si muhammad waaye addi nag mu xawam ak naaxur ak yatra ak yaarub ak yasjub ak naabit ak ismail moom foofa ndax dañoo jurante wala am nañu dox seen diggante wóorul waaye wér na ne rek ca càllala ga foofa la jaar salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyuwaat waa mbokk ina diina bi al islaam euh, waa xam naa euh, li may àdduwaat rek mooy euh, wax ji nga xamante ni seen xaarit caam mi ngi ko doon laaj ci aadam fan la wàccoon xam naa ma bëgg leeral ni moom binduk wala duduk doomu aadama ci suuf moom Euh, euh, ñaari école yi mu séddale foofu mooy euh, diine yi maanaam nag diine yi boo ko waxee mooy adiyaan samawiya yi hmm. ñoom li ñu saxal moo di moom aadam moom la yàlla njëkk a bind ak xawaa beneen madrasa bi rek mooy afxaabu nazariyaati tatawur mooy ñi wax évolution nga xam ni ñooy wax loom yi ci ay eh, nit dafa évoluer ay al insaanu zakki loolu la wérut li mooy yàlla njëkk bind aadama la insaan basar abul basar yàlla njëkk bind aadama la moom mooy li wér eh, moom la alquran wax te moo gën a dëppoo sax eh, ak li science wax ndax nazaree su tawur moom mooy évolution science ko dàq te ñu bëri sax ñuy wax euh, Afrique berceau de l'humanité am ñoom ci tudd ñu aadama de loolu na leer tudd ñu aadama ay yeneen lañuy ñu tudd waaw yoo xamante nii euh, du aadama mi yàlla wax wala euh, boo demee ci yeneen kii kutubu diine yi ci al yahudiya ak al nasraniya aadama bi di wax moom bokkute sax ñii théorie de naan Afrique mooy berceau de l'humanité Afrique moom ndeysaan boo demee sax am na ñoom it nii da ngay dégg ñu naan la Botswana mooy berceau l'humanité ñi naan la Algérie mooy berceau l'humanité ñi naan la Maroc mooy berceau l'humanité ñi naan la Égypte mooy <laughs> <laughs> waaye ñooñu nazariyaat yooyu yëpp euh, ñu ci bëri sax yéen wax ñoom waxuñu yàlla yàlla wax léegi nag li ma fi dugal xam nga dem tudd ab téere daan ne xaw ma wax na ni aadama fii la wàccoon mais mandaxe koog wax ne aadama doon tax alxuraan mais xoolal ñi wax ne aadama àjjana la kii mu ëpp ëpp ci ay borom xam-xam yi yu nu itibaar ah mooy leen saxal ne aadama ind la la wàccoon donte ka nga dem gis yeneen riwaayaat mais bu tax bu tax nga ne nag euh, nga ñëw dàq jumla tan wa tafsilan daan ne ñooñu leen wax wérut te yow bi ngay tudd ay benn ngay tudd beneen bi sax euh, Égypte bu fekkee ne jàppee aadama ni mooy mooy mooy euh, abul basar te mooy abul basar ñi ëpp ci ay boromi xam-xam doon taka taarix la nag saxal ne Inde la wàccoon ah mais nga dugal ko ci ñi wax euh, Égypte la wàcc wala ñi wax faneen la wàcc wala yeneen théorie yi nga xam ne sax ñoom dañoo gëm euh, al istifaawu tabi'i yi maam ñi gëm affaire évolution te ñooñu sa woon aadama ñoom ñooñu ay golo la ne wax ak ay kusax balaad yoo xamante ni dara wéru ci dara wéru ci waaw waaye daal li wér mooy euh, Euh, ay riwaaya taarix ya moom ah riwaaya taarix ya la léegi nag des na nga am capacité d'analyse nga xool yi ngay jël ban moo ci gën a ak bi ëpp euh, ñi ëpp li li ñu wax ak ñi ko wax ñan la nga màndaxe ko rek nga xool ba xam aadama moom ndax euh, Égypte la wàccoon wala wala wala wala wala Inde la wàccoon yooyu ma fi dugal nag ay borom xam-xam la yoo ci nii indi naa ci dugal naa fi ku mel ni ibnu batuta moom dem na ba foofu saxal loolu euh, dugal naa fi tamit euh, yii am na ay ay téere yoo xamante ni xañ na bi ma koy dugal euh, ñëwut mais ku ci dem danga nga ko ko ci fekk waaw alxaafis ibnu kasir ak imran ibnu oyeyna ah boo demee tamit xasanul basri yi ak boo demee ay borom xam-xam yu bëree bëri yoo xamante ni ñi ngi wax Euh, comme nii ma ko fi duwale nii ñoom loolu lañu ñu indi al jinsiyatul bashariya lun ñii aadamaa ci njëkk loolu la ah loolu la alxuraan wax loolu la diine yépp wax nun ñii soxi nopp yi waaxu nii te bañ fi nekk léegi raafaguñu le numéro un pour nous c'est Adam mais pas pour pour pour li téere yi wax leer na de awwalul xalq waxut awalul xalaa'iqi kulluhum kon jinne yëg malaaka yi ñëpp dañ ciy bokk nun ñii laa wax man ak yow li ko dale ci ñun ba ca Adama boo eggee ca Adama mooy numéro un doo paas boo paasee Adama doo gis keneen ku ko jur loolu la wax de waaye ñu ne moom lañ njëkk bind ci mbindéef yi te suñu diggante ak Adama àddina raafagu fi ginnaaw àddina raafagu fi kay kon Adama mu mujj mi mooy Adama mi ngeen xam sama digg ak maam Adama moom àddina tukkee gu fi amul beneen mbindeef mu yàlla tibb suuf tabax bind ko fekk mbindeef yi jeex nañu ba maam Adama ñëwee ba ma bañ bindee Adama ak léegi beneen mbindeef mu bees amul. awwalu insaanin si alal bi te bokk si nun ñii fi dëkk tey mat sept milliards cinq cent millions numéro premier un mooy Adama lool la loolu la loolu la téere yi wax waaye téere yi saxaluñ ni ba yàlla bindagul Adama bindul beneen mbindeef déedéet. téere yi liñ taxal mooy nun ñii fi nekk day du déparé naa ko ci aadama ñëw ba ci yonent yàlla mu am muhammad ba gannaaw aadama dama faa wax kenn waxuma ca gannaaw aadama kenn de ne di woy baayam mën naa tàmbalee ci yow nag yow di woy sa baay di woy baayam di baayam di baayam di baayam ba ca aadamay baayam su ma eggee ci aadamay baayam dama ko man a romb awwalu xalq ci nun ñii aadama la waaye ba fi aadama ñëw fekkoon na fi xalaa yu ataj al inni jaailun fil ardi xalifa alxalifatu yaxlufu saxsan axar ataj alu fi a man yusidu fi a yusiku dima ñan ñoo ko fi njëkk a def ñan ñoo fi njëkk a def fasaad malaaka yaa ko fi def sabku dima malaaka jëkk ko fee def di xalifa day fekk foo xam ne dafa am lu fa nekkoon jóge fa mbaa ñu randal ko fa teg ko fa loolu mooy xalifa ci baatu olof maam Adama mooy premier mbindeef ci nun ñii di dox waaye du premier mbindeef ci li yàlla bind déet déet mooy ndàcc ginnaawam meneen Adama dootul am àddina day tukki ñu dem lijjanti ci problème yi mais li jiitu Adama moom ci ay milliards yi milliards yi milliards yi année i mbindeef yi yeneen i Adama ngi foon ak seen i doom xaw ma Adama yi dinosaure lañu nag xaw ma Adama yi xëq dërëm lañu xaw ma Adama ñu doon waaye Adama amoon nañ ñu dul ñun. waaye awalu man xalaq ci nun ñii awalul xalq ci nun ñii man ak yow mooy aadama ba demal ba ci aadama doo ko paase euh, ni ma doon tegalee maam aadama nag wàcc jëm suuf docteur Muhyiddin Taalo al albi moo al ali al ali al aliyu moo ko bind al albiyu docteur muhyiddin paalo al albiyu moo ko bind téere bi mi ngi tudd atibbul islami al aqli al nafsi al jismi atibbul islami al aqli al nafsi al jismi noonu la téere ba tuddu soo duggee nag ca fusooli téere ba lu nekka nga ca nag <laughs> loo yaakaari newul ma nga waaye boo demee ba ci saf a soixante deux saf soixante trois ca téere boobu ñuy wax al tibbul islami al aqli al nafsi al jinsi li ma la doon wax nii ci maam yi yonent yi foofu la nekk sama sëriñ déglu naa sa euh, sa audio bi man bokkuma ci tabiiya yu bokkuma ci ñi nga xam ne dañoo wax ne nit dafa nekkoon leneen lu dul nit di joppartiku di soppartiku bu soppartiku di soppartiku ba doon nit waxuma loolu de mbindeef ya fi nekkoon te yàlla alag leen ñépp jeex ba mu des jinne aadama bi ko yàllay bind waxuma ne aadama ñooñaa ko jur de déedéet inni jaailun fi ardi xalifa laa wax alxinnoog binnoog ñoom ñëpp ay mbindeef lañu ñu wël waaye waxuma ne ñoo def tasawur ba jur aadama dama ne aadama mooy numéro un ci nit ku ñu bind te loolu kay mooy numéro un ci nit mu jur ñu ginnaaw aadama leneen amu fa waaye nag aadama moomu mooy sun maam am na yeneen aadama yu dul moomu mais juru juruñu ko jur sa xam-xam waxal fi nga yem nga noppi aadama <laughs> moom moom la yàlla bind ci ban ak kew ak ndox ak ngelaw ak vapeur mu jur nu ñun jóge ci suuf waaw point final mais après loolu Adama amoon na ñeneen ñu fi nekkoon di ay mbindeef ñu dul moom mais juruñu ko man waxuma tatawur de waxuma sax ci tatawur ñi dégg li ma wax xam nañ ne man waxuma ci tatawur dama ne njël bi nag ku ñu bind ci suuf nga xam ne man ci laa bokk bi mooy aadama loolu laa wax loolu kay tatawur waxuma ko man aqidatu tatawur waxuma ko waxuma ay néandertal ak ay nangam naar ak ni waxuma lool de aadama daal mooy premier mbindeef moo xam ne rang gi nu taxaw nii dale ci man jëm ci moom su ma eggee fa la yem suufa ci topp waaye meneen mbindeef diru ko loolu mooy tatawur sëñ bi loolu du tatawur du tatawur de yenent bi nee na yàlla nee na inna laa xalaqa adam ala suratihi ñu yaakaar ne surati yi jooju mooy yàllaa ko mel déedéet inna laa xalaqa adam ala suratihi ad damiru yarji'u ila laa yàlla dafa weddi yonent bi dafa weddi ñi wax ne tatawur am na ndaxam man de loolu man kotta ko gëm sax man kotta gëm ne surati i addamiru yarji ila ila ila waaye ñu bari gëmuñu ko am na ñu bari ñu yaakaar ne surati i yarji ila laa ba tax ñuy dër seen dën di wax ne ñoo yàlla déedéet ña wax ne aadama aw jën la woon ay maamam ay jën lañu woon ci géej waxuñu dëgg ña wax ne aadama ay maamam ay mbëtt la ñu waxuñu dëgg ña wax ne aadama ay maamam yeneen mbindeef la ñu woon mel ne ay golo ay baabun ay king kong ñu dëgg nii mu mel la mel bi ko yàlla bind xalaqa u ala suratihi lati huwa hakaza ni aadama mel ba ko yàlla tabaxee noonu la mel te mooy awalu xalqin bu mel noonu loolu kay leer na waxuma ci tasawur dara ba daree boole jàpp aadama mooy ku ñu njëkk bind ci doomu aadama yi waaye njëkkul ci mbindeef yi waaye nag amul ndey amul bàyyi suuf lañ ko bindee leer na da di dellu ci téere jàngale luxal arabiya ngeen dem ci manajidi ak xawaamis yi alxab ihbito ngeen xam ndax inzilo ak ihbito ñoo bokk am déet inzilo ak ak ihbito bokk ci li ñuy tekk ci wolof de yeneen yéen yàlla adama ihbito lañ ko wax waxuñu ko an inzilo ihbito lañ ko wax gis nga boo demee ba ca kaw montagne ma gën a soy kaw nga def fa aw doj yaa ngi dégg muy barak liku di wàcc mi karrin mi farrin muqbilin mudbirin maa kajal moo di sakrin hatta o saylu min ali waaw yaa ngi dégg boo tegee aw doj ca kaw montagne bàyyi ko mu naan bërëng bërëng bërëng bërëng bërëng bërëng bërëng ba dem ba ca xurwa loolu moo di alxabtu waaye jóge ci asamaan xaay yi tàcc kooku du tekki alxabtu ci naar te na ngeen ko dem seeti ndax li ma leen wax noonu la wala déet ñi nga xam ne dañuy sàkkal yàlla barab bu mu nekk ñu di ko fa fekki muy yónnee dem leen béréb sàngam ngeen indil ma nangam ak nangam waaw gaawal jibril jibril nag gaaw demal tibb nangam indil ma naawe asamaan yàlla nga fa parararo ci rib rib te bu suuf nañ ko yotaat yàlla yoo fekk yàlla foofa ñooñu ñi gëm ne yàlla daal di ci benn place ñooñu ñoo yaakaar ne foofa la yàlla bindee aadama sànni ko muy xalaw lawi nit tut <laughs> waaw ñooñu ñoom ñoo gëm loolu man gëmuma loolu de <laughs> déedéet gëmuma ne aadama dañ ko bind foofu wàcc ko mu daanu ci suuf de gëmuma ne dañ ko yor ay malaaka ko fii nga aadama daa amoon ni laaf wala ab machine la yàlla defar bu ko fa wala da koo def ni xalaa iqu samaa yi maam da koo def ci aw doj doj bi nag xay yi ne diir ci suuf toj mu génn wala naka la ko def ba mu wàcc kon dafa yoo xam ne eh, da da maanaam xam-xam day egg foo xam ne Eh, yenn yu bëri nit ñi daan ko bind di ko gëm danañ ko nag dana xaw a sopparti ko nag danañu delluwaat ci maani kalimatul quraniya déglu ko ihbitu min a wa fi a wa min a ihbitu min ha ihbitu min ha min asamayi aw min aljannati min aljannati waaw min aljannati ma maana aljannatu ak alxadiqatu aljannatu ak alxadiqatu lan lay tekki ci naar aljannatu mooy toolu jardin bu am garab yu ñuy lekk am ndox muy wala nga nekk fa te nekk ci montagne moo xam ne boo taxawee da nga koy sin mu nekk ne loolu mooy aljannatu waaye ci même place bi nga nekk fi la jannatu di nekk ci luxal arabiya nag lay wax da dégg alxadiqatu maxuusun min alxadaqatayni sa gis nga sa uggu bët wii ak sa nenkategu lex lu xóot boobu moo di xadaxa sa uggu bët wii ci kaw fi sa yéen sax ak sa nenkateg gi di nekk ci sa ci sa ci sa kanam xar kanam nga xam ne boo takkee weer fi lay tege sa nenkateg boobu ak sa uggu bët xóot boobu bët bi ne xóot boobu moo tudd xadaxa alxadiqatu mooy tool boo xam ne dafa nekk ci biiraw xur ay tund wër ko mu amam ndox am ay garab aljannatu mooy tool boo xam ne foo tollu janoog moom foo ma mu leer mooy toolub dër boo xam ne daa ami garab akam ndox garab ya doon garab yi ñuy te mu nekk ci kaw aw tund fu waay toll janoog moom muy jannatu janoog moom foo toll seen ko mbaa leer na loolu mooy aljannati bi luxal arabiya mu ngoog sëriñ bi indi ko waaye saa sa wayte u wan faxtu fii min ruuhi jooju fa xaw lawu sajidin moo lay xamal ne yàlla moo tabax aadama ba mu ne coppoy mu def ci moom agru ruu ne su ma leen ko defaree nag ba mu egg ba ma def ci ak ruu na ngeen ko si na ngeen ko sujjóotal na ngeen ko ja moo waral sujjóot ba laa tafalu shay'an bi xayril isni fal isnu shartun fi qubuli shani maanaam ndigal li yàlla ne aadama ndigal li yàlla ne malaaka yi leen aadama moo tax sujjóot booba dagan lan moo la teree sujjóot is amartuka kon law sajada walam ya'mur ula kaana shirkan is amartuka lépp ci ndigal la taxaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sama sëriñ yow de déggoo wolof dama lii ngeen wax yépp gis naa ko waaye man li ma gëm mooy Égypte la wàcc xanaa wax jooju kay juleer naañ ñi am sama sama ngëm wàcc Égypte gi day yàq sama diine xam nga sama diine waxuma ne na kenn gëm ne Égypte la wàcc man gëm naa ne aadama Égypte la jëkk a dëkk Égypte la jëkk a dëkk loolu laa gëm gëmuma leneen gëm naa ne nit ku ñuul mooy premier homme buy dox ci kaw suuf ndax Adam maxlu maanaam maxuusun min al adim al adimu mooy lu ñuul nit ku ñuul la fi njëkk te Égypte la nit njëkk Afrique la nit njëkk dëkk moom moo di berceau de l'humanité loolu laa la wax danga baat bi tax ma tontu la mooy danga wax ne Afrique du berceau de l'humanité ma ne la Afrique mooy berceau de l'humanité fi la nit njëkk dëkk loolu moo wér li nga ma indil yépp gis naa ko tafsir imam tabari yi ngi nii mën naa ko foto woon la ko léegi yaa ngi dégg tafasir yi nga wax yépp mën naa ko foto yónnee la ko léegi léegi tout court nga xam ne maa ngi tafsir yooyu ak yeneen sax waaye man gëmuma loolu laa wax xam nga li ma lu leer la man d'accord ma ci liñ wax man li ma d'accord mooy aadama Égypte la njëkk a dëkk yaay loolu la njëkk a dëkk te itam Afrique mooy berceau de l'humanité delloowuma la ci téeréb tafsirul Qur'an dama laa delloo ci téeréb taarix alxuraan ñu wàccut pour nekk yonent bi lam yakun mu arrixan doonu toon ab ab historien doonu ko woon daa yi ila tawhid wala ibada la doonoon waaye Muhammad wàccul nekk ab historien bu leen neexee nag ñu jël histoire dugal ko ci biir alquran waaye alquran moom histoire bi mu nettali Adama wàcc na la nettali waaye fu mu dëkkoon waxu ko ginnaaw alquran waxut fu mu dëkkoon nag ñoom ñiy firi aaya ba wax ca fa mu wàccoon ak fa mu dëkkoon ak dëkk ba mu wàccoon ak dëkk ba tudd fan lañ ko gis ci alquran amu fa addis bu wér wàccu ci alquran amu fa newuma la nekkoo ci tabar yi gawuma li tabar yi wax laa wax man ma d'accord ma ci taarix laa la jox ne boo demee ci tufatu nazirin bi nga xam ne égyptiens yi njëkk ci ci Égypte di bind histoire ñoo ko bind loolu lañ wax te ña ko wax du nit ñu ñuul nit ñu xonq lañu Afrique du berceau de l'humanité jooju nga wax d'accord ci Afrique mooy berceau de l'humanité fi la maam Adama njëkk a dëkk loolu laa wax waxuma leneen tabari woo masamba ma dem boo gëwuma ca dara ndax gisuma ko ci alquran gisuma ko ci hadis yax bi nekkul ci alquran tabar yi ngi ko jëlee ci israiliyaat yi loolu tàyyi naa see nekk di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, suñu imam ñu ngi lay nuyu baax de di la siyaare te di la jox sa wàccuwaay alhamdulillah Ah, ñu ngi siyaare it euh, al oustaz xat pakka ñu ngi leen di siyaare bu baax wax dëgg yàlla ci xam-xam yu rafet yi nga xam ne nii mu ngi fi sotteeku waaw man day wax dëgg yàlla euh, sama gës daal li ma jox mooy Afrique mooy berceau de l'humanité Afrique moom fi la nit li ñuy wax nit Afrique yi lañ dëkk a amee même loolu boo xoolee sax saison yi ak euh, nees yi amoon rek nga xam ne loolu mooy mën a nekk waaw euh, la xam naa nag gëstu alquran mm, si seex moom macha allah ndax aaya bi daf maa jaaxal te xam naa ne laajoon naa ko sax ustaas xat pakka mooy minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra ci suuf la leen bind ci suuf la leen di delloo ci suuf la leen di génne ci beneen yoon ba mu nekk euh, lu am solo kon moo tax moo tax ma laajoon Oustaz Xattaak ne ko ndax doomu aadama wala aadama ba ci ñun ñii ndax mas nañoo kook suuf waaw mas nañoo teqalikook suuf même boo xoolee sax euh, aaya alquran bi wa is qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa maanaam xalifa gu kay bu ko yàlla bu ko yàllay bind kay ci suuf a tax mu ne ko bind ndax suuf suuf ci suuf la koy la koy dëkkal waaye nan nan lay dëkkalee nit ci asamaan ba noppi war koo wàcce ci suuf suuf yi jaaxal ma lool waaw maanaam euh, aadama ci boppam moom musta teqalikoo suuf aadama te moo tax xam naa daal buñ doon gëstuwaat alquran bu baax a baax a baax dana am solo ndax yu bare bari israiliyaat yi ñu ngi koy wax waaye yi ci wér bëriwut de waaw yi ci bëri ay israiliyaat rek la waaye ñu ko gëstoo ba ci biir yi ci bëree bëri wérut waaw salaamaaleykum wa rahmatulah si Moussa maa leen nuyu di leen ziar mbaa ci jàmm alhamdulilah waaw si Moussa xam nga wax ji moom euh, man bi may wax maa ngi doon wax ci aadama fan la doon dund ci bi ko yàlla wàccee waaw waaye man waxuma maa wax ji du ma woon defe naa loolu yaa ko dugaloon te man toon naa leen ma doon tontu waaw. Adama eh, bi ko yàlla wàccee ci suuf laa doon wax fan la ko wàcce woon te yow théorie yi Cheikh Anta Diop wax nga doon ko wax Cheikh Anta Diop waxul moom nit ñi muy wax ni ñoo wàccoon ci àllu Tanzanie bi théorie yooyu dafa ay théorie yu bari yoo xamante ni même ay scientifique dañ koo weddi. léegi nag yow en tant que ab jullit gëm nga ni aadama mooy abul basar moom la yàlla njëkk a bind ah nan bàyyi fa fan la doon dund parce que loolu doon doon wax ji waaw asamaan la doon dund ak suuf la dund loolu doon doon xam nga loolu wax ji mooy aadama bi ko yàlla wàccee léegi après loolu moo xam ne dund fu mu fa mu doon dund aljana aljana fan la ne woon xam nga waxoon naa la fii ne la aljana moom fa mu nekk man dama koy delloo suñu borom ndax yàlla nee na ah, digg na aljana yoo xamante ni arduha ka ardi nga xam ni moom far loolu sa ëpp na suuf euh, ak kii suuf ak aljana suuf ak kii boog euh, asamaan mais buñ dil si wàcc ci question bi Cheikh Anta Diop bi muy wax euh, Afrique berceau de l'humanité ak ñeneen ñu ko théorisé ñooñu waxuñu aadama waxuñu aadama léegi lan lan mooy seen firnde ne aadama bu fekkee aadama la yow ngay wax fan la wàccoon ci Afrique ñen ñoo ko bind lan looy firnde yi mais bu ma renvoyé ci Cheikh Anta Diop mi nga xam ne moom waxut waxutoon aadama moom waaw waxutoon aadama mi ngi doon wax ci ay insaanu zeki ay l'homo sapiens yooyu nga xam ne ay théorie yoo mi ay théorie darwin darwin yàlla gën a doon ah te loolu ñu koy wax sax mooy beneen école bi nga xamante ni ñoom dañoo wuuteeg diine yi ci euh, nasatul insaan maanaam susuk nit nit nag bu ñu koy wax ñun nit nit nga xam ne doomu aadama lañ ci jublu aadam njëkk ci aadama moomu ñi ëpp ci téere yi ay israiliyaat ak ay pas israiliyaat ak mais mem yéen indi leen ay sax ay israiliyaat yu wax ne ci Afrique la ñëwoon bu leen ko amee beneen mooy ngeen indi même ay riwaayaat daifa yoo xamante ni eh, asar la na doon lu ko neex yuy wax ni eh, Égypte la wàccoon mais bu leen ñu renvoyé ci Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop ba muy wax waxutoon ñoom aadama moom waxu leen woon waaw théorie yi ay théorie darwini yàlla moo ñuy wax ay ay yu gudd ñii sax dañuy dem naan ay ñii Botswana ñii naan Égypte nga gis Algérie yi sax naan Algérie ngay wax ñeneen ak ñeneen mais riwaayaat yu bëri ay borom xam-xam wax ko bi xam di nasar nag ay israéliyaat yu yu dugg ci l'islam ñooña Inde la ñu wax dama ne loolu mooy wax ji gën a fiiw waaw te aadama ñun alquran religion révélée yëpp saxal nañ ni aadama mooy ki yàlla njëkk bind ñu ëpp ci ay borom xam-xam yi jullit it saxal ak yeneen eh, téere yu saxal ni aadama Inde la wàccoon léegi da nga ñuy indil bu dee ci la ñu wax ne mooy nit aadama moom fan la wàccoon ci Afrique ak yéen téere yéen borom xam-xam ñoo ko bind. waaw li ñuy wax nit de nit adama la ci yàlla njëkk a sàkk loolu moom kuy jullit moom moom da koy nangu waaw ñuy wax nit waaye nag am na yeneen bindeef yoo xam ne nii moom moom jiitu aadama ñooy waaye nag li ñuy wax nit moom moom mooy bàyyi nit ñi dañ ko woy abul basar nag waaye nit ñi aadama moom ci nit ñi ci aadama lañ sàqi ko waaw waaye aadama moom da cee bëri ay wuute de siñ bi aadama fii ni kenn mun laa wax làkk wi la doon làkk xam nga laaj naa la keroog nga ne aadama làkk yëpp la doon wax làkk yi dañoo bëri de làkk yi mën na juróom benn junni làkk xam nga nit kuy wax juróom benn junni làkk moom dañu yomb am na làkk woo xam ne moom lay wax wan làkk la doon wax waaw ba léegi fii nii nit ñi dajewuñ ci de ku nekk da ngay xëcc jëmale sa bopp rek ndax boo demee ci boo demee ci hébreu yi ñu ne hébreu la doon làkk boo demee ci araab yi ñu ne ñu ne la doon làkk wolof yi sax bu la neexee ñu ne wolof la doon làkk ndax fii nii kenn mënu laa wax ne la làkk bii la aadama doon làkk waaw euh, Inde la wàcc na yu ci bëri ay israiliyaat la moom waaw yu ci bëree bëri moom ay israiliyaat la de waaw waaw aadama daal euh, liñ ne asamaan la nekkoon it moom man bu gisee aaya bii minhaa xalaqnaakum fiihaa nu'iidukum wa minhaa nuxrijukum taaratan uxraa waaw ci suuf lañ leen bind ci suuf lañ leen di delloo ci suuf lañ leen di génn ci suuf lañ leen di delloo te gis naa it qul nahbitu baadukum li baadin adu ak ihbitoo misran ñaar yëpp ay ihbitoo lañ wàcce googu gan wàcc la ndax wàcce wàcce jóge asamaan ñëw ci suuf la waaw te it boo jëlee si euh, euh, wa is qaala rabbuka lil malaayika inni jaa'ilu xalifa ci suuf la yàlla def xalifa waaye du du xanaa yàlla du bind ci suuf xalifa ba noppi di ko yóbbu ci kaw maanaam yu yu bëree bëri yu ja mata seetantal la waaw mata seetantal la waaw xam nga suñ Cheikh Diop imam bi muy laaj axnaatun la doon laaj maanaam euh, population Égypte bu njëkk ba ci lañ doon waxtaan waaye ci lañ doon waxtaan euh, ba agsi ci waaye ñun waxuñu ay tatawur tatawur moom <laughs> yooyu moom ab jullit du ko gëm tasawur ab jullit du ko gëm waaye li nga xam ne espèce scientifique andi na ko daal waa yooyu lañ doon wax ñun waaw nga xam ne espèce scientifique ko nga xam ne am na jamono yoo xam ne nii Afrique ci boppam fii la mën a dund ah li scientifique andi laa wax de ci la Afrique Afrique ci la mënoon a dund am na jamono yoo xam ne mooy on soorul jëlit waaw nga xam ne jamono yooyu bi dafa bëri woon lool am na yenn milliers yoo xam ne nit mënu faa dund waaw foofa Afrique rek la nit mënoon dund waaw yooyu lañ doon leeral ci est scientifique rek waaw ci lañ doon wax ak euh, Égypte bu njëkk ba ndax dañoo nekkoon ñu ñuul wala ñu nekkoon ñu ñu weex yooyu ci lañ doon discuter di ca wax xëy na wax ji nag moo dem ba ci aadama yooyu waaw waaye nag nañ bàyyi xel ne euh, téere diine yi ci bëree bëri nag wàllu population bi comme population yi nii nii nii ñu koy leerale nii ndax leerale nañ ko daal ndax leeral nañ ko li ci ëpp wàllu diine la ñuy wax de ci yonent yi lañ ëpp lu ñuy waxtaane waaw xam naa buñ ci bàyyi woon xel ci loolu daal dana am solo. waaw sëñ Moussa euh, xam naa dina enregistré wax naa ko kii sax waaye sama téléphone bi fay maa ngi jégal tamit mbokk mi doon def dars bi mais sëñ Moussa euh, wax ji naam bu dee foofu la tàmbale woon fi nga wax xam nga li ñuy wax ci ay riwaaya taarix ya euh, axnaatul moom nga fi doon tudd d'abord Euh, euh, diine diine tawhid mu woote woon xam nga am na yu wax sax ni moom mooy tasa woon ak yàlla yusuf nekkoon amel xatab rabia ginnaaw bi mu soppi turam tudde boobu waaw di doomi amel xatab ak rabia euh, amel loolu mooy moom la ñuy wax diiney tawxid jëm indi woon jóge ci taaddudul aliha ñëw ci ibaadatu ilahin wahid loola mooy ba ko yonte yàlla yuusuf ci yenn riwaayaat yi euh, ba mu ko dugalee ci diine euh, tawxiid hmm? ci la bàyyi woon jaamu amoon waaw loolu dama ko wax noonu pour wan la ay riwaayaat benn bi mooy ñun kay bu ne wax booba léegi xam nga ne xam nan ni bu ne wax ci ki yàlla njëkk bind euh, ci nit lan wax waxun ci jinne waxun ci malaaka ci nit mais maa ngi lay waxaat Cheikh Anta Diop théorie yooyu muy wax nga xam ne bind na ko fu ni mu def ko fa ay kii ay euh, ay ay waxtaan man amoon naa ci yu bëree bëri mais Cheikh Anta Diop aadama loolu na leer te théorie yi wax yépp ci Afrique berceau de l'humanité mooy ñi gëm beneen école bi gëm al istifaaw tabiya yi mooy mooy évolution nga xam ni sax romb na golo euh, fa muy jaare ci ndox ak ay wallax njaan ak ay euh, jésuite maanaam euh, tasawurul asiya nga xam ni science daf ko dàq xam kon ñuy wax ne Afrique berceau de ñooñu yéen bokkut ak yéen kii nii comme imam bi Cheikh euh, Adama moom nag bu waxee ni Adama Égypte la wàccoon te ngeen ay israéliyaat dugg na ci lislaam loolu xam nan ko mais terewul ay boromi xam-xam ci ay ay ay ay ay ay euh, xam nan israéliyaat yi la ca wér ak lu ca ah. Ah, parce que doo ji lépp jàq jum la nga tafsiran terewut ay muhaddisuun ay doon tax gaa ngi satin fa riwaayaat yi ay ah, muarrixuun ay historien ay ah, ulamaawu tafsiroom yi dañoo indi que ni aadama eh, inde la wàccoon wax jooju defe naa laaj boobu ci aadama fan la dund parce que loolu nekkutoon man li ma doon wax bi xat di nasar ak fu mu mënoon dund ci kaw ak ci suuf ak tout cas alxuraan la ñu wax mu leer mooy àjjana la la la la nekkoon te yow sa laaj moo nekkoon àjjana jooju fan la woon waaw waxoon naa ko ci audio bi man moom àjjana fan la ne woon loolu dama ne waaye di ci nit ñi wax yépp ndax àjjana jooju yàlla di bind nañ ko binduñu ko jaa aadama nekku nag maanaam lu ci man di nekk maa ngi doon wax kii di dàq ne Afrique mooy berceau waaw ba ma waxoon la ni la yaa ngi doon wax ci luxaar yi luxaar yi tam li may ci wax laa wax xam nga loolu ba tey riwa eh, eh, riwaayaat euh, muxtalifa yi am ci tabalbulul alsun ah mais li wéru mooy wa allama aadama asmaa kullaha dama ne la woon am na borom xam yi wax ni aadama làkk yépp la xamoon waaw làkk yépp la xamoon am euh, boo demee ci yeneen kii yeneen euh, riwaayaat yi ñiy wax ay ëbra euh, ak ay euh, ay les langues profanes ak yu ma la mënta wax ay làkk sarayaani yaak araami loolu détail yooyu dugguma ci mais la ma doon wax li l'essentiel te moo nekkoon li ma ci duggee woon mooy dàq ne Afrique du berceau de l'humanité te bu ñu confondre Cheikh Anta Diop buy théoriser kii buy théoriser Afrique berceau de l'humanité loolu ca beneen école bi la mooy école ñuy gëm si faaw tabi yi gëm ni nature bi te loolu sax ay nazare ilhaad yi njëkk a loolu mooy ñi dàq beneen école bi mooy école diine di wax ni nit ñu ngi sosoo ci ci ci ci ci ci bind gu ko yàlla bind ah te ci njëkk mooy aadama ñeneen ñëw nag nga xam ne ay ay ay mulxiduun lan waxuma kenn de mais dama wax ni théorie bi ca tàmbali ba foofu la mooy ñi gëm ni àdduna bi wala doomu aadama dafa sosu ci maanaam ci ci ci ci ci tabiya bi noonu rek di def tasawur ba jaar maraax liñ jaar yëpp nga xam ne loolu sax scientifiquement wérut am ñeneen sax ñuy wax yeneen nazar yoo xam ne mooy azaliyatul kawnu nga xam ne moom it science ko dàq ah mais xulaasatul xawlu li ma doon wax ay aadama làkk bii la doon wax ak fan la doon euh, algérie euh, jëm ne ko fan la nekk ak mais teewul rib ni Afrique mooy ci wax ji mooy Afrique moom ku wax ne mooy berceau de l'humanité ba pare tudd ay Cheikh Anta may la Cheikh Anta Diop bu xutoon aadama beneen bi mooy kii fi wax ni aadama Afrique la Égypte la wàcc woon même na indi ay israiliyaat na indi ay riwaayaat yu daifa ñu gam-gam lekk woog borom xam-xam yi nga xamante ni xam nañ israiliyaat yi mais téréwul ñu wax ni Inde la wàcc damay dama la ñu ëpp laa wax xam nga bu dañuy wax ñaar ma gën a préciser aadama mooy abul basar moom la yàlla njëkk bind ci ci nit waaw waxuma ay goloog ay nuroog nit ak yooyu nit laa wax waaw waxuma moom la yàlla njëkk a bind ci ci mbindeef de parce que lépp ay mbindeef la mais nit laa wax léegi nit kooku nag ah euh, fan la doon dund pour gën a préciser ci say wax même bu fekkente ni léegi dund woon ci kawet mais ci suuf fan la fi doon dund xanaa am na fu fi doon dund léegi may la man ay borom xam-xam yoo xam ni dañoo dañoo wax ni Inde la lan ko lan ko wàcce parce que yàlla moom euh, baatu hubut la jëfandikoo waaw fan la fu léegi fan la xëbataa ah maanaam fan la wàcce loolu beneen question la mais mooy euh, ci suuf moom inde dama ne la ay borom xam-xam ñi ëpp laa wax ci ay historien ñoo xamante ni ay mufassirun lan inde lan wax xawaa jidda ñu tase ñi wax musdalifa baat bi di jógee foofu euh, maanaam isdila mooy ishima euh, am ñu waxaat ni ñu ngi tasewaat arafa ba jële ci kii yooyu am na sax ñu wax ni eh, Inde la jóge woon eh, ñëw Màkka eh, njaboot gi bëri fa ak ay riwaayaat yu bëree bëri yoo xamante nii mais xulaasatul xawlo ma waxaat ko mooy Afrique mooy berceau de l'humanité moom ku koy wax da nga di jullit gëm ni aadama mooy nit ki njëkk mooy kon war ngaa saxalaale ni aadama wax fan la wàccoon ci Afrique waaye nag boo fekkee da ngay boole ñaar Afrique mooy berceau de l'humanité jële ko ci théorie yu demee ni ñu ñoom Cheikh Anta Diop di wax te Cheikh Anta Diop waxul aadama kooku da ngay def confusion beneen bi mooy nag laaj yi ci duggaat yëpp nag te xaj na wax ji taxu ko a jóg doon da koy yéen yéen wax ji waaw ma li ma ci duggee mooy taf niit que ni Afrique mooy berceau de l'humanité waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah oustaz xat fàkk ñu ngi lay nuyu baax di la siyaare xam naa audio bi sax dama koo tàmbali déglu xam naa ñi def yi ak ak jubbanti tuuti rek xam naa nag daa mel ni yow da ngay da ngaa liir euh, maanaam film yonent yàlla Yuusuf bi njuumte yu bëree bëree bari moo ci nekk ci histoire njuumte yu bëree bari sax dañ cee juum ba passé juum sax ci histoire jamono yi sax bokkuñ euh, yonent yàlla Yuusufa mi ngi dajoog mi suus yi xeet wu ñuy wax Hyksos ñooñu la dajeel maanaam fukkeelu dynastie ak juróom-benn fukkeelu dynastie ak juróom-benn ñooñu la yonent yàlla Yuusufa dajeel maanaam seizième dynastie eh, Axnaatun mi ngi nekk dix-huitième dynastie bokkuñ sax jamono ñoom ñaar bokkuñ jamono benn Axnaatun gëmutoon yàlla Axnaatun xam naa eh, histoire Égypte dafa gudd waaye kon ma leeralal la la tax Axnaatun créé benn yàlla tudd ko Atoun waaw axnaatun euh, bu dee yusufa moom exousi la deel la jël exousi moom xam naa war nga leen a xam waaw bi indo européen jógee ci santaru asi bi di wàcc mooy mooy ñi ñuy wax xiisi yoon yi ak mitaani yoon yi ak kaasi yoon yi biñ dikkee biñ dikkee nag songu Irak ak euh, fii Turki nekk ak fi Syrie nekk ci la yenn xeet yi nag ak ci ñoom ay xeet yi bëri dajaloo daal di song Égypte ndax aw ay moom bu tàmbalee moom daanaka day tasaaroo bi mu song bi ñu song Égypte nag daal di nangu delta bi ñooñu nag la Yuusuf a dajeel ñooñu wax Hyksos boo xoolee alquran sax buy wax euh, du leen du leen wooyee firawna malik la leen di wooyee waqaalal malik waqaalal malik lay wax waaye nekkuñu ay firawna waaw fii diinil malik waaw loolu la alquran di wax waaye buy nettali Moussa ak na lay wax kon moo lay xamal ne kon ñooña nekkuñu woon ay égyptiens ay ay ay exus lañu woon ay étranger lañu woon ñëwoon fa. benn buur bu ñuy wax Seqanan euh, Raa moo xeex ak ñoom ak euh, beneen ak ñaari doomam ku ñuy wax euh, Kaamus ak Ahmus waaw Kaamus léegi Ahmus moomu nag moo jur Amin Xawtib benn Amin Xawtib benn moo jur Taxus Mus benn tawus mu benn moo jur tawus mus ñaar ak beneen jigéen bu ñuy wax xat sab suut moom moo remplacé tawus mus ñaar tawus mus ñaar moomu nag ki ñuy wax euh, tawus mus ñett moo ko remplacé amin xawtib ñaar remplacé ko euh, tawus mus ñeent nga xam ne mooy maam yi ax naatoon doog koo remplacé tawus mus ñeent bi mu jàllee nag ci la amin xawtib ñett doog a ñëw amin bi ñett bi mu dikkee na ci la ax naatun doog a dikk waaw <laughs> xam naa foofu moom ñu def ci ak gàggante euh, ax naatun gëmutoon yàlla dajewutoon ak yonent yàlla Yuusufa yi teg ca kon ñoom ñaar diggante bi soree na waaw diggante Yuusufa ak ax naatun soree na euh, ax naatun maanaam maamam ki ñuy wax tawusum ñeent di doomi amin xawti ñaar kahana yi maanaam ñi nga xam ne ñooy buxaaba yi te ñuy jaamu amuun ca Tiiba maanaam dañ koo contrôle moom nag mu dem ànd ak buxaaba yi nga xam ne nii dañ doon jaamu raa dañ doon jaamu raa raa nag mooy jant bi ca man léegi nag euh, bi nga xamee ne tawus mus ñeent toog na dafa contre ñiy jaamu amoon daa di daa di daa di daa di favoriser ñiy jaamu raa léegi nag bi mu fi jógee nag ci la amin xawtib ñett toog bi mu toogee nag ci la axnaatun toog axnaatun ne bi mu toogee nag ci la ne léegi daal day xeex diine atuun diine amuun amuun da koy xeex bal sax diine amuun waaye diine yépp lay xeex këree diine boppam joxe ne ceeñeeru jant bi la ceeñeeru jant bi la waaw nga xam ne moom ceeñeet jant bi la doon jaamu waaye nekkutoon ne da doon jaamu yàlla maanaam pour tawxiid yi nga xam ne nii mooy bi bi si bi nga xam ne moom la eh, diine asamaan yi indi déedéet moom diine jant bi la doon jaamu maanaam yàllay jant eh, jant bi la doon jaamu atoon ceeñeeru jant bi moom moom sax utulu utulu ko woon istati ceeñeer rek la doon jaamu mook benn soxnaam bu ñu wax Nefertiti Nefertiti daa mujj sax génn Tiiba capitalu eh, pharaon yi bu njëkk daa di tuxu créer dëkk boppam bu ñuy wax oxtu euh, atuun mi ci wetu ker waaw oxtu atuun euh, bi nga xamee ne dee na nag euh, ci la kaxana yi nekkoon ca tiiba daa di attaqué diineem ji ba mujj gi dañoo daane diine ja ku ñu wax xorom xog moo ko am na yenn pharaon yi ci jaaraat ñuy wax aay ak tuut anax amun ak sankaria ci la xorom xog nag dikk nag daa di daane diine ja daal di daal di gën a taxawalaat di lay atoon di lay amoon waaye euh, audio bi nag am na bu audio audio bu ko jiitu waaw pour mu xam naa dafa xaw a yéex a dugg waaye li ma la bëgg a wax mooy baatu invito googu nag gi nga wax noonu nag euh, moom lañu war a leeral ndax maanaam wàcc jóge asamaan ñëw ci suuf la loolu moom la war a laaj ndax euh, invito misraan googu am na ci alquran maam ñaari invito yooyu laa wax. moo tax man man man dama ne man man aadama ci boppam ndax ndax ndax teqalikoo na ak suuf laa wax teqalikoo na ak suuf maanaam ba ko yàlla sàkkee ba nim ba ni mu fi jógee ndax teqalikoo na ak suuf maanaam loolu mooy sama loolu kay man maa lay laaj waaye aadama mooy abul basar moom loolu moom kuy jullit moom nga gëm tatawur it wax dëgg yàlla am gëmuñ ko xëy na maanaam waxtaan wi moo àggoon ci euh, yi ñu doon leeral ci aspect scientifique ñu doon leeral noonu ci wàllu Afrique mooy berceau de loolu moom comme ni ko scientifique yi andee rek waaw ci jamono yi euh, jamono yi ni doon doxee yooyu waaw loolu moom bu dee scientifiquement moom noonu lañ ko mën a jàppee waaw noonu lañ ko mën a jàppee waaw waaye euh, ba tey li ma la mën a wax mooy aadama moom ba léegi nii boroom xam-xam yi trouvé wuñ ne làkk wi la doon wax wala couleur sàngam la meloon waaw bëri nay wuute daal ci aadama waaw bëri nay wuute Euh, donte nag ñun ñëpp d'accord nañu aadama moom mooy abul basar waaw si Moussa Ka maa leen di waajule ziar bi bi ma lay wax ci axanaatun déggoo ne ma la dama ne la keroog yaa ngi wax la ni la ay riwaayaat day am ci taarix ah ba wan la ni la am nañu wax ni axanaatun ah euh, moom ngay wax day amee xatab arrabia nekkoon jëkkër Nefertiti moo taxe woon yonent yàlla dama ne am riwaayaat kay dama doon wan rek riwaayaat yi ni muy wuutee beneen bi mooy musalsal Yuusuf bi gën a siiw iranien yi joué ko sonn ci lool dellu ci ay maraajo yu bëri gis nga ñoom même ba ni def Axnaatuun euh, dama war a ñu lay riwaayaat ni muy wutee waxuma la ban moo ci wér dama ne la même riwaay euh, ñoom bi ni def Axnaatuun ñi ngi ko présenté comme ah, Firawna bi tase woon ak yonte yàlla Yuusuf te Yuusuf ju jële woo euh, bi mu duggee Égypte xista bi xam nañ ko ginaaw bi mu indee baam Yaquub ak mbokk yi jëlee leen ci ardu Kanaan indi leen fa fekk mu dugaloon Axnaatuun ci diiney lislaam ca la bàyyee jaamu amoon léegi nag instauré fa jaamu euh, ibadu ilahin wahid damay loolu am na ci riwaayaat yi dama doon woon riwaayaat yi rek ni muy wutee comme li nga xamante ni imam bi ñëw na fekk may wax rek mu dikk bëgg a dàq jumlatan wa tafsilan moom it Eh, wane ni aadama wàccutoon wàccutoon Inde Afrique mooy berceau de l'humanité eh, loolu rek laa doon bëgg a wan mais riwaaya yi am na moom yu wane que ni Axnaatuun moom ak yonte yàlla Yuusuf ñoo tase woon comme ni ma amee ay riwaayaat yu wute ci ban Muusa ban Muusa ban Firawna la tasee loon hmm? ak sax eh, faraayina yi yooyu ay riwaayaat la yuy wuute pour wan la mais toujours tamit ci taarix talxiix day am bu dee ci wàll gi ñu doon wax nag ci aadama ban makkaan la nekkoon la la la la wàccoon ah dama ne boo demee li asar yi gën wér ak ay muarrixuun yu lislaam liñ saxal mooy que ni Inde la wàcc waaw doon daka am nay riwaayaat yu wax la neen <laughs> waaw jërëjëf Moussa Pakka soo xam nga dama ne la film bu dañ cee juum dañ cee juum lool sax loolu kay li ma la wax nii du dañ maanaam boo xoolee rek ci alquran rek ngay xam ne yusufa euh, exosi la dajal ay alquran ni mu koy waxee fii diinil malik ma almalik lay woote foofu wax foofu almalik nañ delluwaat ci alquran rek almalik lay wax foofu waaye bi wax ci Moussa na lay wax moo lay xamal ne kon ñoom ñoom ay étranger yu fa ñëwoon lañ benn yusufa mi ngi dajeeg exosi waaye dajewut ak axnaatoon maanaam axnaatoon moom booba ñii booba booba Égypte am na doole Akhenaton bi muy bi muy keneen Guinée Atoon booba Égypte man nga ne àdduna bi ñoo ci ëpp doole jamono booba adduna bi ñoo ci ëpp doole. waaw booba boobu moom mën nga ne moom ñoo ñoo yor doole adduna bi jamono booba comme ni Amérique mel nii noonu lañ meloon jamono booba waaw wow moo tax njumte la de Yuusufa dajewut ak Akhenaton Akhenaton nekkutoon jullit Akhenaton moom gëmutoon yàlla diine Atoon la doon jaamu. déet fi Moussa <laughs> xam nga. xam nga man bi ma lay wax eh, ci axnaatun dama la doon delloo wala ni ni muy wutee du man maa juum de dama ne riwaayaat yi am na yow xam nga ne am na man li ngay wax nii taarixu maanaam xadaaratu eh, misr al firawniya dama koy jàngale xam naa ko bu baax riwaayaat yi nga ci wax yépp ah, dama koy eh, gëstu di ko jàngale xam naa ko de mais riwaayaat yi la am na comme ni mu amee ay riwaayaat ci ban Moussa la Firawna ba ba ba astafurla ban Firawna la Moussa taseeloo nag ah ba yenn égyptiens yi dàq ni Moussa eh, kii Firawna boobu doonutoon eh, kii doonutoon eh, Misri ba ci taarixu suuf yooyu nga wax ak bi ñu ixtilaal Misra ban koy tax yooyu yëpp xam naa ko dama doon wan rek ni la am na ay riwaayaat yuy am ci taarix mais sama maxallu ni xaas mooy Euh, buñ gëmee ni ma waxaat ko mu leer aadama moom la yàlla njëkk a bind ah ci nit te nit kooku dama ne riwaayaat yu bëri ci ay borom xam-xam yu jullit ay asar ay historien lim saxal mooy que ni aadama mi ngi wàccoon Inde léegi nag buñ binaayee ci loolu que ni nit a doomu aadama ñu koy askanale ci aadam ki ci yàlla njëkk a bind mooy aadama te aadama moom inde la wàccoon naka la Afrique di nekk berceau de l'humanité te même li ngay wax nii ma li may xam naa ko de boo demee programme bi bi ñu teg ci terminal bi ci histoire euh, am na ca bu nu jàngalee Afrique ya mahadul basariya Afrique mooy berceau de dañoo dem ba ci biir ñu weddiwaat ko pour wala ne la am na ay riwaayaat ci ay abxaas diine yoo xamante ay test arène yu ñu won ci ay maanaam ay recherche yu ñu doon wax ci kenn Afrique mooy berceau de l'humanité mais yeneen yu koy weddi mais damay nag boo ko nga mandaxe ko ak Euh, riwaaya diine yi ah, yi saxal ni nit moom aadama euh, aadama la ci yàlla njëkk a bind te aadama moomu borom xam-xam yu bëree bëri euh, moo xam ay israéliyaat la wala ay borom xam-xam yu jullit yi xam ne xamoon na israéliyaat la ci wér la ci wërut lim saxal mooy que ne Inde la wàcc woon waaw loolu mooy ma xàllu ne xaaf bi mais yii gis nga buñ ci duggee nii day day day gën a jël débat te te loolu xañ ne taxu ko woon a jóg ci ay xadaara al firawna al alxadima ak ak seen usari yeeg ak seen kii yooyu moom ay ay ixtilaaf kese la loolu du wax ji wax ji mooy est-ce mooy berceau de l'humanité hmm? ak ndax euh, théorie yi ñoom Cheikh Anta di wax ah di wane ne Afrique mooy berceau de l'humanité ndax yéen da ngeen a jàpp ni nit ñooñu ñuy wax aadama la wala du aadama ak li fi imam bi doon wax ni xawma kii kii fee la wàccoon Égypte la wàccoon yéen riwaayaat moo ko wax loolu mooy wax ji de mais xam-xam rek boo ko ci dugalee day gën a divertir rek sa wax ci du leer maa ngi jégalu nag si Moussa dégg waaw loolu de dëgg la moom yaa ngi koy jàngale waaye nag riwaaye bu mën a andi ne axnaatu moom euh, gëmoon na yàlla moom loolu moom <laughs> dana doy waar loolu moom waaw ndax euh, maanaam loolu taarix yan mënut a nekk daal taarix yan taarix yan maanaam taarix moo ko nanguwut daal. taarix moo ko lëwut ku xam histoire dëgg dëgg laa wax nag dëgg dëgg nga xam ne gëstu nga ko na nga ko war doo doo nangu ne Axnaatun moom euh, gëmoon na yàlla Axnaatun moom maanaam ceeñeer jant bi doon jaamu te dajewut ak Yusufa yi teg ca waaw waaw foofu moom xam naa comme ni nga ko waxee rek xam nga Adama mooy abul basar loolu moom kuy jullit doo ci werante loolu moom mooy li wér waaw waaye ndax aadama mas naa teqalikoo ak suuf si maanaam ba ko yàlla sàkkee ba nim fi jógee ndax mas naa teqalikoo ak suuf waaw baatab ihbitoo googu ihbitoo googu ndax gan wàcc la moo tax mooy la ihbitoo baadukum li baadin aduw ak xul na eh, ak eh, ihbitoo misran ñaar yëpp ihbitoo la ban xeet ihbitoo la waaw te yàlla bi waxee wa is qaala rabbuka lil malaayikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa damay damay euh, fàttali ko ba sa borom waxee malaayika ne damay damay damay damay bind damay damay def ci suuf kuutaay maanaam ku ma wut ba ni ba ni euh, mafhumul quran ni alquran di andee ba léegi maanaam da ngay gis ne aadama ndax teqalikoo na ak suuf si daal maam aadama aadama ndax ndax ndax yàlla da ko bind yóbbu ko asamaan après mu jógee asamaan wàcc ñëw suuf man loolu laay laajte waaye aadama fan la nekkoon ak yooyu moom euh, ind ak yooyu moom ndax am nay wuute ndax yaag siñ seex siñ seex siñ seex gay imaam rek wuute ngeen ci euh, kii ne ind la kii ne Égypte la te ne waaye ndax aadama mas naa teqale ko suuf si sëñ Moussa sëñ Moussa bu fekkente ne yow yaay gëstu ci taarix dama leen même yow yii ngay wax nii yii ngay wax Eh, ak eh, ñeneen ñi li ne wax dama la benn bu ci am jenn wax amut bu ni riwaay bi amut riwaay bi am na léegi nag taarix yéen wér naag wér loolu moom wax yëpp boo demee ñii dañuy wax lii ñuy wax lële rawatina ci histoire Égypte ba ci faraana eh, yi fi jaar ak firawna bi ci gën a kii rek ay firawna bi taseeg Moussa ban firawna la ba ci ay nit sax taxaw di débattre que firawna bi lab na wala labut Euh, ak égyptiens yi wax ne firawna woo misri la woon wala euh, Suus la dëkkoon euh, ban na moo tase woon ak yonte yàlla Moussa ban moo tase woon ak yonte yàlla Yuusuf dama ne la loolu ay riwaayaat dama ne la jëmmi riwaayé laa waxuma la ci dama ne riwaayaat yi bëri na ci loolu defe naa moom bu dee xam nga histoire loolu mënoo ko dindi waaw léegi nag des na ci mu muarrix bi ah mu man am capacité boo xam ne dana tanxiir xaj na alxawlu raajax la ñuy wax mais kenn du battu sax ci ni lii moo wér mais riwaaye laa xam ne damay lu demee ni Iran kay munoo taxaw ñu ne film musalsal boo xamante nii li may wax nii diiru ma ko rek ci musalsal iranien bi de loolu nag seetaan naa ko ba mu jeex dama ne la dama am riwaayaat yi am na laa la wax waaw ñoom it mënoon sukkandiku woon ko fenn def nag wér na wala wérul loolu moom euh, histoire moo demee noonu waaw mais diggal fi may waxee dama la ay riwaayaat day am bii ma ko sudd sax bañ naa ko loolu laa la ko waxee moom laa doon waxit imam bii doon wax pour wan ko ne ko euh, euh, bi ma waxee ba pare mu dikk nam ko dàqe sax waaw pour mënoon na ni sax xañ na am na riwaayaat yu yu kii même euh, aspect scientifique bi ngay wax ci Afrique mooy berceau de l'humanité dama ne la boo demee am na yeneen scientifique yu def ay drasaat yu weddi loolu laa la wax waaw fan la ci Afrique dafa am wute Égypte la wala Botswana wala Afrique du Sud même Algérie wala Maroc koo ci dem sax ñoom da la fii mooy diglul fi may waxee dama ne la riwaayaat yi day wuute laa la wax waaw mais bu ma delsee ci dama doon wax pour bañ a dévertir parce que fii laa yem moo di këni wax jii ñu doon wax wala ba li ma doon wax mooy wax ni Afrique du berceau de l'humanité tayit Adama abul basar riwaayaat yu bëree bëri yi ëpp al aksar ya saay xaleen wax ne mooy Inde la yoon loolu daal mooy li may wax te di ko mujjewaat euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw Oustaz Xat Fakk <laughs> ñu lay siyaare bu ba maanaam loolu yow kuy gëstu histoire Égypte gëstu war taarix yan doo ko nangu doo ko nangu maanaam seen jamono yi ñoo bokkut léegi da ngay bind da bindal dugal ci internet nga bind jamono bi Akhenaton di dund ak bi jamono bi Yusufa di dund da ngay xam ne bokkuñ jamono ñoom ñaar internet rek boo ci duggee dan la ko wan bokkuñ ñoom ñaar te nag euh, riwaay bu mën a dikk li pharaon yi bind seen bopp nag wa dëgg yàlla mënu gis nag moom pharaon yi ñoo bind ñoo bind seen histoire ñoom dañ ko bind waaw même boo demee ci côté Caire ba euh, fa ñuy wax tani la amaari na xeeti leetar yi nga xam ne nii moom la moom la yenn buur doon bind axnaatul yëpp man ko waaw ak euh, seen armeel yeeg yëpp pharaon yi dañoo bind seen histoire bàyyi ko fi biñ demee nag ba bañ mën a tekki hiéroglyphe nag lañ ko lañ ko tekk nit ñi xam ko waaye na ko nit ñi doon waxee bokkut ak léegi de waaw ay ay ay Walid ibn Musab ay Walid ben Rayyan ak yooyu nga xam ne arab yi ñoom ñoo doon bind eh, histoire Égypte di ko bind mu leen neexee di ko bind ci wàllu xeet ak yooyu yooyu moom yooyu moom xeet riwaay yooyu moom daanaka moom wax dëgg yàlla li fara mooy bindatun daal dix-huitième dynastie la Yuusuf ma nga dajeek seizième dynastie waaw seen diggante bokkuñ jamono ñoom ñaar waaw saaka sàkk yàlla bi muy sàkk aadama kay nga xam ne mooy abul basar aadama kay ndax mas naa teqali ko suuf kay man man sama problème mooy loolu xam nga boo ne wàcc moom wàcc leen mooy day mel daane woon ca kaw wàcc wàcc ci suuf ndax aadama mas naa teqali ak suuf waaw ndax mm, wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilu fil di xalifa kon ci suuf la kuutaay li suuf la nekk kuutaay li ci suuf la nekk moom mooy loolu mooy loolu mooy sama mbir waaye wuute Inde la wàcc ak euh, Égypte la wàcc loolu ay wuute la euh, taarix nag mën naa am wute mën naa am wuute waaye boo jëlee ci ñaari hibito yi ma la wax rek nga xool ko rek ba xam maanaam euh, gan wàcc la wàcc jóge ca asamaan wàcc jëm ci suuf la wala. salaamaaleykum wa rahmatullah inna diina inda Allahi al-islaam maa leen nuyu maa leen nuyu seen Cheikh Lo Safi seen Moussa Ka <laughs> seen Moussa yow daa mel ni ne waa waxal de yow seen Moussa Ka dama laa wax ne la euh, maanaam yonte yàlla Yuusuf hmm? ax la jamonoonte la dama ne la am nay riwaayaat da ngay déglu bu baax li ma la wax yow dafa mel maanaam xuma rek maa topp xuma ci dama ne la yonte yàlla Yuusuf am nay riwaayaat yu wax nii axnaatuun la taseeloon am na sax ñu wax suusiir suuseer nga xam ni bokk na ci euh, ñi njëkk a tabax euh, ay ay ay pyramide am na ñu wax ni ci jamono yi suus yi la woon ah dama ni la taarix ci moom yow bu fekkente ni ab xam nga taarix xam nga ni taarix dafa am ay riwaayaat dama ni man la ma la wax dafa leer dama ni la am na ay riwaayaat yow riwaayaat yooyu da ngaa bëgg dàq ni am na wala amul léegi nag mu def nag riwaayaat mutaaddida yooyu ah ban moo ci alarjax loola man wax ñëwuma ci mais la ma la doon interpellé ci euh, ci ci ci bi may tuddaat ax naa tuur mooy dama la doon wan ni comme bi ma ñëwee wax aadama euh, fi mu wàccoon euh, imaam bee ñëw weddi ko ma bi nga ñëwee commentaire ci waxe imaam bi ma lay wan ni la taara dafay may riwaayaat ba ni la sax li nga doon wax ci ax naa am na yeneen riwaayaat yu ko wax faaw nga dégg fi may waxee riwaayaat yooyu nag mënoo dàq ne am na yow dafa mel ni da dafa mel ni da ngay wax ak man ci ni man dama laa damay damay saxal ni Yuusuf Ixnaatun la taseeloon damay la am na ay riwaayaat léegi riwaayaat yooyu am na wala amut am na sax ñeneen ñuy wax ci bal sax <laughs> ñoo xamante ni ci jaamiatu ayni Shams lan nekk ay ñoom ci nii ay anthropologue égyptien lan ñuy wax yeneen riwaayaat am ñuy wax ci suuf si la taseeloon am ñuy wax suuseer am ñuy wax euh, am na sax bal ñu dem ba ni yuusuf ci boppam mooy mooy mooy mooy mooy axnaaf woon <laughs> riwaayaat yi laa ne la am na ma nekkuma ci saralub saxal la ni la yuusuf jii la parce que riwaayaat ay riwaayaat la du alquran du sunna waaw man ngaa jàpp nag bii mooy arjax ci yow mais man néew nekkuma ci saralub kii wax ji dama ne woon sax fii laa ci yem mais yow dafa mel da ngaa déggu fi waaw yi ngay indi nii yëpp dama koo gis xam naa ko mais li ma doon wax damaa bëgg nga bàyyiwaat ko xel pour nga bañ a continuer di indi ay kii dama ne la am na ay riwaayaat boo demee ba ci euh, xadiya bii euh, ak ak ak yeneen rawatina ci euh, kii alxadaara al firawna al misriya li ñuy wax ci faraana yi ak ci ban zaman la yusufa doon dund yonte yàlla Moussa moom itam ban firawna la taseeloon yooyu yëpp dama ne la am na ay riwaayaat ban firawna moo moo mujj yooyu dama ne la ay riwaayaat yi kese la loo xam ne bu waree ba fa mu xewe woon sax ñoom seen euh, baaxi yi dañ ciy werante di ci wax riwaayaat yi laa ne la am na mais man nekkuma ci sarado déggoo benn yoon may la lii mooy riwaaya al arjax bi bi bi bi bi këni ax naatuun moo tafe woon a kii mais riwaaya bi am na laa la wax loolu faaw nga comprendre fi may waxee moo nga yi ngay indi nii man gis naa ko xam naa ko asalaamaaleykum waaw al oustaz xat pak ñu ngi lay nuyu baax di la siyaare di siyaare suñu Cheikh Lo Safi ak euh, suñu imaam suñu Cheikh Gueye Gandigal ak suñu beneen imaam bi suñu Cheikh Diop ñu ngi leen siyaare bu baax ah, alhamdulilah waaw en kay dégg naa la sax de dégg naa la te topp naa fi ngay waxee waaw ah, danoo dama doon andi ak leeral foofu rek ci axnaatun ak euh, yusufa waaye fi ngay waxee xam naa ko bu baax kon nag ni nga nangoo fii ne am na ay wuute kon bay wa nga nangu ko ci aadama am na ay wuute ñii ne Inde la ñii ne Égypte la waaw kon bay nga nangu loolu te man li ma wax rek maanaam aadama moom jàpp ma ne moom mas naa teqalikoo ak suuf si aadama moom comme ñaan asamaan la jóge wàcc ci suuf man loolu gëwuma ko li ma gëm mooy aadama moom ci suuf si mus mus a teqali suuf si man loolu laa gëm ndax li yàlla wax rek minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra aaya boobu daal boo ko jëlee jël wa iz qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa waaye yàlla daal ba mu tànn xalifa di bind aadama suuf see tax mu bind ko waaye bind ko yëkk di ko yóbbu ca kaw waaw ba ca toppaatin mooy Euh, invité googu moom euh, gan wàcc la wax wàcc wàcc wàcc gan wàcc la fi nga nekkoon nga jóge fa maanaam fi nga nekkoon nga jóge fa dem feneen wala da jóge ci asamaan wàcc ñëw ci suuf waaw xam nga nag yu bëree bari moom ci euh, démb gis naa nga andi xisul anbiyaay moom <laughs> ci ay ay waxin yoo xam ne da xam ne yii moom yu doy doy waar la moom waaw doy doy waar la qissatul ay moom bari na ci yoo xam ne ay dafa fees dell ak israiliyaat lool sax waa xam naa wàll gii dama ci mujje <laughs> mooy euh, ma leeralaat ni euh, dama doon wane ni taarix dafa am ay riwaayaat ay riwaayaat yoo xamante nii comme ni comme ni ñu waxe woon ni aadama euh, ay boroomi xam-xam yu bari dañoo wax ne Inde la wàcc puisque loolu doon samay wax am ku ñëw wax la neen Eh, ma wane ne nag taarix dafa am ay riwaayaat ma jëloon ci exemple lu Axnaafun bi waaye nekkuma woon ci sanadum ni Yuusuf jamono tel la doon dund nekkuma woon ci maanaam point saxaal ni Yuusufa ci jamono tel la doon dund wala Firawna tell la jamononte yoon ndax loolu moom riwaayaat yi dama ne am na loolu kenn mënu ko weddi loolu mooy damay wax mais waxu nekkuma di saxal eh, Yuusuf comme na ma saxale ni la ma na ma gën a gëme ni Adam Inde la wàccoon nekkuma woon ci sanadum nii Eh, axnaatuun eh, moom la yonte yàlla yu tase woon dama ne riwaayaat yi am na parce que riwaayaat yi am kay moo tax am ñu ko bind am ñu ko joué film ah, am ay eh, ay baax suñu ko yu ko wax am ñu wax laneen maanaam jëmmi riwaay bi laa doon wax ni loola am na si Moussa Ka faaw nga comprendre fi ma doon waxee waaw xam naa nag lii moom fii laa ci yem maa ngi jéggalu xaj na ba laneen loo xamante ni xañ na war nañ cee mën a wax <laughs> ndax lii guddal nañ ci lool te loolu lii taxuma woon a jóg li nga wax kay xam naa ko bu baax a baax a baax maanaam mbiram axnaatun ak ak yusuf lu fi jaar lak la waaw lu fi jaar la da ngay wax ne am na yeneen riwaayaat yu wax ne euh, ñoom ñaar la dajeel waaye nag xam-xam moo ko nanguwu daal taarix yan nanguwu ko waaw bu dee ko xam histoire Égypte dëgg nag laa wax nga xam ne dajale téere yu bëree bëree bëri ci moom du ko nangu daal maanaam ñi ngay gam-gam le ñaar yu ñoo bokkut daal gam-gam gam-gam leeg euh, Yusuf ak Axnaatun ak gam-gam leeg Adama ak Inde ak euh, ñaar yooyu dañoo bokkut bee moom maanaam yan daa mun daa dafa dafa mënta nekk taarixiyan maanaam dafa dañoo dañoo kii daal dañoo sore lool mu ñoom ñaar daal te même alquran sax moo ko nanguwut alquran moo ko nanguwut xam nga buñ delluwaatee ci alquran rek da ngay xam ne ñaari gam-gam lay mënuñoo bokk alquran boo xoolee ci yusufa day wax euh, almalik lay wax foofa buur buur la fa buur waaye boo xoolee euh, buy wax ci Moussa firawna lay wax taaxnaatul xam-xam li histoire andi lépp ñëpp d'accord nañ ne firawna la pharaon la waaw foofu rek da xam ci alquran rek alquran moom leeral na lépp alquran leeral na lépp waaw si Moussa maa lay nuyu de ziar daa mel yaa ngi ci marché bi de waaye si Moussa xam naa ni ko waxal de <laughs> Sidi Moussa man waxuma fi benn yoon ni aadama ci asamaan la la la wàcce woon gis nga loolu ni mu amee ay wax xam woon loolu noonu ah am am na ñuy wax ci ni aljana jooju ci kaw la nekkoon am na sax ñu wax ne jannatul xudd la am ñu ni du moom joxe seeni lay am ñu ni janna la mu nekkoon ci ci suuf maam man nekkuma ci lool lool sax jàpp naa ne man waxuma ko woon maanaam euh, débaawuma woon ci aadama fan la jóge woon maa ngi doon wax rek fan la doon dund waaw Euh, fan la aadama doon dund ci suuf xam nga même bu fekkee ni suuf la doon dund am na fu mu doon dund ci foofu su fekkente ne ci kaw lu jóge woon ci suuf it am na fu mu doon dund man loolaa doon wax waaye nekkuma woon ci wax ni aadama euh, ndax daa jóge ndax da ci kaw wala ci suuf fan ci suuf la doon dund waaw léegi nag wax jee ma wax ni damaa jàpp ni mooy al arjax mais gëm naa ni ah kuy gëstu ci taarix di gëm jenn wax taarix moom du kii di du du alxuraan di fi Musaa ak ma gëm ne am na ay riwaayaat waa waaye toujours nag euh, muarrix bi ak euh, ci ay taxlilaatam mën naa dem ba jàpp ni wax ji moo gën a wér ak it ay borom xam-xam wax lu gën a lëng lin wax waaw ni kay ni nga xamante nii ni la amee ñu ñu ñu wax ay riwaayaat yu wute ci daanaka ci ki ba ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne sax sax fee bu toll ni moom am na ñuy wax ay riwaayaat yu bëri ah am ñoom ñi waxuñu fukki fan eh, ñaar ci weeru gàmmu ah fan la doon dund ci suuf am nay riwaayaat loolu kay xam naa ko eh, li ngay insisté nii xañ ne yaakaar naa waxoon na ko ne woon naa du suñ ma xàllu ni xaas yow dafa mel ni man dama fee ñëwoon di defa di wax ni aadama ca kaw asamaan la doon eh, dund la la ci tontu woon leer na bu yàgg ci audio yooya waaw <laughs> xam naa xam naa guddal nan lool ci wàll gi nga xamante ni man la ma ci taxoon a jug rek ah, te la ma ci ëppaloon solo mooy taf niit nii Afrique mooy berceau de l'humanité waaw ah, ci loolu nag bi may saxal loolu laa indi woon aadama comme mooy dañuy wax berceau de l'humanité te jàpp naa ni humanité moom bu leen wax ah, basar aadama moo ci njëkk aadama moom nag fa mu doon dund ah moo moo falan jàpp ni foofu mooy berceau de l'humanité waaw man egg nag ci ni eh, ñi ëpp ci borom xam-xam yi eh, yu lislaam di eh, xat di nasar nag ci seeni ixtisaasaat ña ca nekk ay muhaddisuun ña ca nekk ay doon da wax naa ne am na ay riwaayaat xadiisa yoom ci nii fal ak ña nekk ay muarrixuun ak ña ca nekk ay mufassiruun ah ak ñi nga xam ne sax ay raxaaluun la woon comme Ibnu Batuta la ñu saxal mooy que nii Inde la doon dundu ba boo ñëwee ci xisasul anbiya ci dugal naa fi démb ci Naysaabuur yi ak ay borom xam-xam yu bëree loolu la ñu wax keneen imam bii di kon fi di wax euh, Égypte ma ma ne woon laajoon naa ko yan riwaayaat ñooy wax ni Yuusuf euh, kii boog euh, Adama Égypte la doon dund loolu moo nekkoon sama xulaasatul xawlu mais yow yooyu nga ma fi doon laaj naa am ay ban nduxa la doon kiiw ak ndax ci asamaan si ci kaw loolu man duurutoon samay wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi jégal loolu ci guddi gi ndax yow daa mel ne yaa ngi ci waar wi te man mi maa ngi nii bëri ay yitte loolu yu may def te wax lii jël na wax sama waxtu bu bëree bëri comme ni mu jëlee sa waxtu <laughs> wasalaamaaleykum wa rahmatullah ah sama oustaz yow sama oustaz te kaw nga waxoon te <laughs> kaw nga waxoon déglul audio bi te kaw nga waxoon de waaw maanaam dama bëgg ñu dellu si waat ci alquran rek maanaam mën nañ nañ teg alquran rek teg ko Euh, buñ tegee alxuraan yaakaar naa lépp dana leer naññi alxuraan résumé na lépp yàlla moom ba muy wax malaayka yi damay damay damay wut kootaay ci kaw suuf aadama la tànn euh, te ba mu aadama man li may wax mooy aadama mu mës ko suuf si moom àjjana ja nag moom man damay jàpp ne àjj àjjana ci suuf la nekkoon nekkutoon ci kaw ci suuf gii la nekkoon suñ euh, Cheikh Gueye sax leeral na ci lu bare bëri démb wax dëgg yàlla am leeral yu am solo wax dëgg yàlla leeral na ci am solo waaw waaye nag euh, ni nga nangoo ne wuute am na fële it bay boo nga nangoo ne wuute am na fii kon ku ci nekk rek da ngay jàpp bi bi nga bi nga gëm rek euh, ñi jàpp ne Égypte la man moom Égypte bi laa gëm moom wax dëgg yàlla <laughs> xëy jàpp Inde bi rek damay jàpp ne Égypte euh, Afrique gii moom mooy berceau de l'humanité jàpp ma ko nag ngir ne ay tatawur ak yooyu yooyu moom julli du ko gëm moom waaye man damay jàpp ne Afrique gii mooy berceau de l'humanité waaw jërëjëf yaa ngi andi fi gis-gis yi nga xam ne nii moom lañ andi ci euh, kan Youssoupha kan la dajeel <laughs> waaw yow yow mi gëstu xam nga ne yow ñu ci baree bari xam nañ ne euh, Amin Xawtim mi mënut a nekk Youssoupha moom <laughs> Amin Xawtim mi nga xam ne noos ab nooskat la woon moom daanaka bëgg euh, daanaka jigéen moom li mu yoroon ci ay sax kenn xamul nu mu toll nooskat la woon moom mooy mooy mooy moo nekkoon borom këru tii di di bàyyi ax naatoor <laughs> xam nga euh, xalaat yii nii xëy euh, na luñ bind la nii rek ñi mu wax ci borom xam-xam yi nekk Égypte ñu ci ñu ci bëree bëri yor naa seen i téere euh, docteur Ahmed Fakhri ñu ko gën a aay ci égyptiens yi bëriwut ci ci xam-xamu tologue yi ak Abdoul Aziz Salih docteur Abdoul Aziz Salih docteur Mouhamed Bouyoumi Mahran docteur euh, Ramadana Abdou waaw ñu ci bëree bëree bëri ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii adib waaw te euh, daal ñoo xam ne nii ñëpp bind nañ ci Égypte waaw ñoom ñëpp maa ngi yor seen i waaw ñoo ngi yor seen téere dama jël nag bu Cheikh Anta mu Sénégal moom daanaka waaw ndax duñu rafet maanaam moom tatawur ci tatawur lay dox waaye lim liggéey ci Égypte yaakaar naa ñu ko ci liggéey ñim liggéey ci ñim liggéey ci ak lim ci wax lépp ak li nga xam ne égyptologue euh, yi gën a mag ci la bopp leeral na ko waaye li ma la mën a xamal moom moom Axnaatoon moom ak euh, Yuusufa moom seen diggante ñoom ñaar ñaar téeméeri at ak juróom fukk la seen diggante ñoom ñaar waaw li histoire andi wuute yi nag lu mu bari bari bëri moom day am foo xam ne moom mooy day leer ne lii mooy histoire bi yow <laughs> lii nga dugal fii démb yow xam nga yow leen yow dee na xel sa xel xel xel bu ko nangu yowul kon aadama guddoon na de aadama guddoon na de wàccee ci wax euh, euh, sarandiit na ñu ne ibnu abbas nee na nee na aadama euh, demoon na maanaam boppam bi dem na ba ci asamaan é kon aadama guddoon na bopp bi dem ba ci asamaan maanaam maanaam guddaayu aadama dem na ba ci asamaan ba amaan nga xam ne maanaam day dégg yi seen sàbbaal yi bu ko defee aadama di mën a wettali ko seen sàb bu di malaay yi ragal ko <laughs> malaayka yal ko daal di koy jabat euh, yàlla yàlla daal di koy daal di daal di wàcce maanaam daal di daal di daal di dindi euh, ba mu toll ci euh, juróom benn fukki xasab waaye lu jiitu loola maanaam <laughs> boppam bi dara laal miir yi ah day na waar de xam nga yow lii nii yow maanaam ci taarix yan rek histoire xam nga ne yow boo ko gëstoo ci taarix aadama diggante beeg asamaan tudd kon de aadama moo lay xam yi xisul anbiya yi léegi nag waaw <laughs> alosag nga yow yii nga indi ci ay lay ci xisul moom yu doy la xam nga ne yow loolu xel sax da koo nangu xel maanaam aadama gudd na ba àgg ci boppam di àgg asamaan buñ ko wàccee loolu <laughs> eh, xam naa nit ñi yàlla Ibn Abbas moom yeb nañ ko loolu Ibn Abbas moom liñ koy waxal lépp <laughs> luñ jóg rek ñu ne Ibn Abbas nee na <laughs> waaw waaye maanaam xel moo ko nanguwut ah léegi yow ta eh, eh, bi kay am na solo ndax dem nga yow ba nangu nga ne léegi aadama ci suuf la nekkoon loolu am na solo suuf la ne suuf la nekkoon am na solo waaw man moom kaw gi laa nanguwut kaw gi moom nanguwuma ko ndax damay gis aaya yoo xam ne nii euh, minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra ak ñaari ihbitoo yi qul nahbitoo minha jamia ak euh, ihbitoo misra waaw damay gis àjjana yàlla tudd ko ci euh, wadrib la wadrib lahu masala masala masala rajulin li ahadihima jannatayni ñaari àjjana waaw foofu ci surtout surtout kaf bi foofu àjjana kon tool lay firi waaw ak mm, inna balaw naa kama balaw naa jan na waaw foofu tool lay firi kon àjjana jooju mën naa nekk ci suuf waaw non li ñuy waxtaan nii ci xam-xam la rek xam-xam la xam la ñuy débat rek xam nga du temps temps boo xëy dañ koy sànni déedéet xam-xam la nit ñi mën nañ cee jariñu ñu ñëpp mën cee jariñu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 seen mbokk Cheikh Diop moo leen di nuyu di fekk ci bunt bi sëriñ mu sàkk ak sëriñ Xat Fakka ak sëriñ Cheikh Lo Sefi di lu bu baax waxtaan wi am na solo xam naa li ma ci wax de mooy taarix moom dafa bari ay wuute néew na sax lu bari lu ñu dëppoo néew na waaye ñaari wax ñetti mbir yi ngeen di wax muy ndax aadama ind la wàcc wala Égypte ak ndax àjjana jooju ci asamaan la woon wala ci suuf ak garab ga xañ na wala yusufa kan la jamononteelan boo delloo ci daal ibnu kasir al bidaaya wax na ci loo xam ne daal manees na caa jàpp waaw ndax dafa wax ni <clears throat> lim njëkk a wax mooy ndax àjjana jooju ci kaw la nekk walla ci suuf ibnu kasir dafa wax ni wal jumhuru ala annaha hiya allati fi samaai jumhurul ulama li ñu wax mooy àjjana jooju ci kaw la nekk loolu wax ibnu kasir la mu del wax ni wa hiya jannatul mooy fi ñuy wax jannatul mawa mu ni lu tax li zahiril ayati wal ahadisi ngir suñu xoolee saahiru aaye alquran yi ak xadis yi yonent bi alayhi salatu wasalaam day tegtale lool mu daal di jàng aaya bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata mu ni kon aaya boobu dëkkal yow ak sa soxna ca àjjana mu indi xadis boo xam ne ñëw na ci sayu imam muslim muy xadis bu gudd mooy xadisu abi malik al ashja'i te mooy saad ibnu tariq mu jële ci abi xaasim salamati ibnu dinar mu jële ci abi hurayrata ba tey abu malik arab jële na ko ci rabi mu jële ko ci xusayfat al yamani ñoom ñaar ñëpp ñu wax nee yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yonent bi nee na yujma yajmau llahu naasa yàlla dina dajale nit ñi yajmau llahu naasa yàlla dina dajale nit ñi fa yaqumu almuminuuna nit ñi way gëm yàlla yi jóg maanaam loolu bu bis pencee suñ borom day dajale doom way day dajale bindee fi yëpp nit ñi yëpp nee na nag way gëm yàlla yi dañuy jóg xiina tuslafu lahumul bu ñu leen jigaleelee àjjana maanaam dañuy ñëw ba jigee àjjana fa yaatuuna adama ñu daal dem ci aadama fa yaquluuna ñu ni ko yaa aba yaa abana yow sunu baay istaftih na nga ubbil la naa ñeelu aljanna te àjjana ubbil nu àjjana nee bu yomal xiyaamee yàlla day dajale nit ñi buñ jigalee àjjana nag way gëm yàlla yi ñooy jóg ni aadama kaa yaay sunu baay kaay ubbil nu àjjana lan la aadama yi tontu fa yaqulu wa hal axrajakum min aljannati illa xatiati illa xatiatu abikum wa hal axrajakum ndax génne na min aljanna ci àjjana illa ndare xatiatu abikum ñaawteefu seen baay defoon muy bàkkaar ba xadis boobu imam muslim génne na ko ci kitaabul iman ibnu kasir ni wa haata fihi quwatun jayida zahira fi dilalati ala annaha jannatul mawa waaw ibnu kasir moom li mu jàpp mooy mu ni lii day day tegtale ne ajjana joojee ca kaw la te mooy ajjana ji yàlla dig way gëm yàlla yi mooy jannatul mawa loolu la ibnu kasir wax ci waxam ju njëkk loolu la ibnu kasir wax ni loolu mooy xawlul jumhur waaye nag mu daal waxaat ne waxaala axaruna am na ñeneen ñu wax ci boroom xam-xam ñi balil jannatu lati askanaha aadamu lam takkun jannatul xuldi ajjana ji yàlla dëkkaloon aadama du àjjanay du jànnatul xuldi ndax da ko caa toggan ni ko bul lekk ci garab gi da ko waxan ko bu lekk ci garab gi loolu la ko digalan ñu ni kon am na ñu wax ni kon àjjana jooju du jànnatul xuldi mu ne loolu nag waxla la joo xam ni ñi ngi ko jëlee ci ubay ibnu kaab ba tey jëlee nañ ko ci abdullah ibnu abbas ba tey jëlee nañ ko ci wahab ibnu munabbah jëlee nañ ko ci sufyaan ibnu uyayna ibnu qutaybata nee na wax jooju la tànn te nee tam wax jooju ñu bari tànn nañ ko ay wa hadha al qawlu huwa nassu tawraat buñ delloo ci tawraat loolu la wax ne àjjana jooju du jannatul ma waaw waaye jannatul xuldi la kon xilaaf bu njëkk bi ibnu kasir moom loolu la ci saxal waaw ba tey euh, ma del siwaat ci albidayat wa nihaaya bu euh, ibnu kasir al jusul awal dafa wax ni ba tey ajjana jooju ndax ci kaw la nekk wala ci suuf ak ndax jannatul mawaa la jannatul xuld ginnaaw bu mu saxalee ñaari wax yële ñii nee nañ jannatul mawaa la ñii ne jannatul xuldi mu ni waxu ñaareel bi mooy am na boroom xam-xam wax ni jannatun aadaha allahu lahuma wa jaalaha daara ibtilaa'in la joo xam yàlla daf ko waajalan ñeel aadama ak xawa waaye walaysa jannatul xuldi lati jaalaha daara jasaa'in waaye du ajjanay jee nga xam ne mooy jannatul xuldi nga xam ne yàlla da koo def kërug fay ibnu kasir mu ni wa man bi haada ixtalafu ala qawlayni ñi wax ni nag ajjana jooju kat du jannatul xuld waaye jeneen ajala ju yàlla waajalan aadama ak a ngir nattu leen mu ne ñooñu wax loolu sax ci seen biir dañoo wuute ci ñaari wax ajana jooju ginnaaw nee nañ du jannatul xuldi kon jan ajana la ak fan la nekk mu ni kon wuute nañ ci ñaari wax <clears throat> annaha fi sama yi am nañu wax ni ajana jooju de du jannatul di waaye nag ci asmaan la nekk li annahu ahbatahuma minha ndax ca la leen wàccee ñu ni wax jooju wax jooju alxasan wax na ko waxu ñaareel bi ñu ni anna fi l ard ajjana la joo xam ci suuf la nekk li annahu imtaxanahuma fiha binnahyi an alshajarati allati nuhiya anha duna gayriha min alsimar am ñu ni waxu ñaareel ba kon ajjana suuf la nekk ndax garab ga leen yàlla tere woon da leen ko tere ngir nattu leen ñu ne wax jooju ibnu yaxya wax na ko kon xilaaf la rek boo xam ni li seex mu Ka wax am nañu ko saxal li nga xam ne moom la euh, moom la al ustaas xat fàkk sëy saxal am nañu ko saxal su ko defee kon <coughs> xilaaf boobu ibnu kasir moom indi na ñaari wax yépp ibnu kasir sax boo ci demee moom yaatal na masala yi ndax àjjana ci kaw la ne wala ci suuf ba yaatal na ko ba def na ci xulaasa bu wér waaye nag moom li mu gën a lëngal mooy àjjana jooju daal nekkul woon ci suuf léegi nag ci bindu aadamaatam mu muarrixuuna yi am na luñ ci wax boo demee ci euh, xisasul anbiya bu samarqandi ak yeneen tafasirul quran dañoo wax ni aadama bi ko yàlla bëggee euh, tën maanaam tërewu ko ci suuf si waaye dafa yónni jibril alayhi salaam mu indil ko ay suuf ay suuf yoo xam ni suuf yi bokkuñu mu tibb suuf yooyu indil ko sunu borom tabaraka wa sunu borom tën aadama ci buntu àjjana <coughs> waaw tën ko ci buntu àjjana xiinan min ad-dahri yooyu sax am na ñu koy firee nii mooy ba ñu tënee aadama ci buntu àjjana ñeen fukki at ñu di ko fa romb di jàll kon mu mel ni xew-xew bi nga xam ne moom la yàlla digalan malaayika yi ñu sujootal aadama du ci wan du wan ci kaw suuf buñ toppee ci wax yi boroom xam-xam yooyu nga xam dañoo wax ni aadama kat biñ koy tën sunu borom daa yebal malaayika mu tibb ci suuf yi xeeti suuf yi suuf su ñuul su xonq su weex indil ko ko kon loolu tam am na ñenn ñi ko wax ci ulamaaw yi su ko defee moom taarix moom noonu la bindoo taarix moom noonu la bindoo man nag jàpp naa ne Afrique moom mënul nekk berceau de l'humanité ndax ñi koy wax ay théorie la yoo xam ne ña koy wax euh, lañu gëm mooy aadama gëmuñu aadama waaw ñoom dañoo jàpp ni nit ci tabia la jóge di def ay yokk ay tatawuraat ba ak si nekk nit asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, maa ngi leen di nuyu waaw sëñ Cheikh euh, continuer rek continuer nga indi lay yi nga xam ne ñoom la boroom xam-xam yi lay ba mu jeex xam nga xam nga am nañu wax ne jannatul xuldi la jannatul xuldi mulkun laa yublaa moom la la tax iblis ne leen dama leen di yóbbu ci jannatul xuldi ba mulkun laa yublaa moo di àjjana ji nu nekk du xuldi te du mulkun budul budul te doonul nguur buy foq eh, boroom xam-xam yi wax ne àjjana jooju àjjana dañuy dem ëllëg la am na boroom xam-xam yi wax ne àjjana jooju du àjjana ja ñuy dem ëllëg am na xam nga li dul am xel yow nga ànd ak ñi wax ne àjjana jooj nekkoon mooy ja dellu ëllëg kii moom ne man ànduma ak ñi loolu wax maa ngi ànd ak ñi wax ne àjjana jooja du ja ñuy dem ëllëg nga nekkoon ko nag force di nga nangu ne àjjana ja ñuy dem ëllëg jooja la bu loolu amoon Malik ak Shafi ak Anafi ak Anbali du am waroo ci diine fi lañ ko fekk ñi wax ne àjjana jooju mooy dañuy dem ëllëg am na xam nga ko am na ñu wax ne du jooja xam nga ko dama bëgg continuer nag waxal ma mbooleem ñi wax ne du àjjana jooja euh, su ñu noppee nag ñoom ñu joxe dalil ndax dafa bokk ci sharia ñu forcé ci ñu forcé ñu ci ne nañ gëmal ñii bañ yi bu doon loolu bu Malik xasee woote dootoo am beneen ngir am na ñu wax ne àjjana jooju mooy àjjana ju jëkk ñuy dem ëllëg am na ñu wax ne àjjana jooju du jooja yéen bu ngeen gëmee ne àjjana jooja la sukkandikoo ko ci ay waxi borom xam-xam ñeneen gëm ne du jooja sukkandikoo ci ko ci ay waxi borom xam-xam te ñëpp di boroom xam-xamu lislaam du ngeen jàpp ci gëm ne jooja la rek ñeneen ñi gëm ne du jooja te jàmm na ñooy loolu moo noppale man guuma ne àjjana ji ñuy dem ëllëg fa la maam Adama nekkoon loolu moom du ci damaa nekk nag ci damaa jàpp moo tax suba démb ba léegi damaa nekk ci ay ay ajuma jik alxames damay damay xaw a galfan waaye génnuma ci li ma wax de ndax li ma wax noonu am na ñu ko wax yaa ngi tàmbalee wax ñi ko wax fekk ñooñu arrière yi ci li ñuy wax man du ma arrière ci li ma wax néew ma nag ngeen bañ a gëm yéen li ngeen wax mais gëwuma li ngeen wax man la ñeneen ñu wax loolu laa gëm maanaam yàlla day tudd aljanna te jubluwu ci ajana ja ñuy dem ëllëg demal ci xisatu ashabul jannati waaw soo demee ci gaa yi yoroon tool ba te te te te dew taxoon ñu wax la wax di nga xam ne yàlla dana tudd aljannatu te du ca jublu ajana dañ jëm ëllëg da nga dem ci xisatu ashabul janna janna jooju yàlla di wax ajana yi àllaaxira la am ajana yi àddina yàlla dana tudd aljannatu te du doon ajana yi àllaaxira gëstu leen te continuer rek da gis xam nga aljannatu ci alxuraan yépp du aljana jële la aljannatu yi nekk ci alxuraan yépp du aljana jële bëgg naa ngeen firil ma wa masalu alladina yunfiquuna amwaalahum ibtigaa mardati wa tasbitan min indi anfusihim كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له أن تكون له جنة من نقيل وعناب تجري من تحتها الأنهار فيها من كل الثمرات وأصابها الكبر والأسرية ضعفاء ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون jannatun bi rabbatin moo di janna bustaanun faw fawqa ardin murtafiatin xam nga alquran mooy boppam nee naa leen alquran mooy tekki boppam aljannatu li muy tekki ci baatu arab moo di bustaanun fawqa ardin murtafiatin loolu mooy janna ñaata jannatu ñoo nekk ci àddina bu fekkee ni aljannatu li muy tekki rek ci baatu arab mooy toolu toolu garab buy meññ ñi di ko lekk tem nekk ci kaw montagne loolu mooy jannatu loolu lay tekki toolu garab bu nekk ci kaw aw tund foo tollu seen ko teñ di ko lekk soo demee ci tafsir quran ba mu waxee wa masalu alladina yunfiquuna amwaalahum ibtixaa mardatillahi wa tasbitan min anfusihim ka masali jannatin bi rabwatin jannatu jooju du jannatu ci àllaaxira ndegam am na nag place yi yàlla tudde aljanna fii ci àddina ndegam am na place yi yàlla tudde aljannatu fii ci àddina am na ay place yi fi yàlla tudde aljannatu tudd ko ci alxuraan bu amee boroom xam-xam yi wax ne aljanna ja aadama nekkoon du dañuy dem ëllëg man dama cay tey man ànd naa ci ah wowuma ci kenn nag jànnatoo ngi noonu joo xam ne tekkiwul jànnati àllaaxira te jannatu jooju moom moo firi maa maanal jannatu ci boppam ka masali jannatin bi rabwatin ay bustaanun fawqa ardin murtafiatin loolu moo di jannatu ñaata tooli garab ñoo nekk ci àddina te nekk ci kaw montagne la lay xamal ne aljanna dina am fii ci aldina asaaba a waabilun fa atat ukulu a jaxfayn ajane alaxira déggu ñu wax ne jannatun ata a waabilun jannatun tajri min taati al anhaaru la wax jinaat jannatu dunia yusibu a waabilun jannatul laaxirati nag tajri min taati al anhaar waaye ñoom ñëpp nag jannatun la tudd la tax yàlla ne ko foofu boo fi nekkee doo liw doo tàng doo xiif doo mar loolu mooy boo fi génnee nag di dem fuy xiif aka tàng aka mar yaa ngi dégg duggaguma ci àjjana jooju de li may wax rekk mooy aljannatu yàlla dina ko wax ci alquran te jublu ci ajjana ja loolu moom jeex na du du luur ñu werante kamasali jannatin bi rabbatin asaaba a waabilun fa atat ukula a dafayni fa in lam yusib a waabilun fa tallun aljannatu jooju jannatun fi dunia na haada haadihi moom la loolu moom juboo nañ ci ahadukum an takuna la u jannatun min naxilin wa anabin tajri min tatal anhaaru nga xam ne kon jannatun tajri min al anhaaru am na fii ci àddina yàlla wax na ko jannatun yusibu a waabilun aw tallun am na fii ci àddina jannatun min tajri min al anhaaru day am fii ci àddina yàlla tudde ko jannatun te du jannatu ju njëkk ju mujj dañuy dem alaxira ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min naxilin wa anabin tajri min al anhaaru fi a la uufi a min kulli samarati wa asaaba ul kibaru wala uzuriyatan fa asaaba a i'saarun fi inaarun fahtaraxat ndax jannatun jooja alaxira la nekk ñaari ajjana ngoogu yoo xam ne ajjana àddina la yàlla tudd na toolu montagne bu ndox di suuxate asamaan wala ab lay tudd na toolu xur bu yolnde di suuxat te lépp mu tuddi ko aljannatu ñaari àjjana yooyu maa ngi leen di laaj àjjanay àllaaxira la am àjjanay àddina ah alxuraan nag bu fi àjjanay àllaaxira amee ak àjjanay àddina bu nit ne àjjana ja aadama dëkkoon fii ci àddina la nekk lu ko lu ko teree bokk ci àjjana yooyu yàlla wax ci àddina na ngeen settantal bu baax man ñëpp wax lépp lu tax ma ànd ak ñoom de am nañu wax ne àjjana jooju fii la woon loolu laa gëm débaawuma nag mais loolu laa gëm boo demee ci suratul isra lan la fa gaa yi wax yenent bi wa qaalu lan nu'mina laka atta tufaj atta tafjura lana min al ardi yanbu'an aw takunu laka aw takuna laka jannatun min naxilin wa inabin fa tufajjiru al anhaara xilaalaha tafjiran aw tusqita samaa kama saamta alayna kisafan aw taatiya billahi walmalaikati qabilan aw yakunu laka baytun min suxrufin aw tarqa fi samaa'i walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaynaa kitaaban taqra'uhu qul subhaana rabbi hal kuntu illaa basaran rasuulan foofu la wax ji di jeexee waaye li may laaj mooy aw takunu laka aw takuna laka jannatun min naxilin wa inabin fa tufajjirul anhaara xilaalaha tafjiran a jannatu jooju dañuy dem ëllëg la ci yëfar yi jublu woon wala dañuy dem dañuy nekk fii luxal arabiya dañuy wax aljannatu te jubluwuñu ci àjjana dañuy dem ëllëg luxal arabiya jooju yàlla waxee wa wa jox yonent mu wax ci alxuraan alxuraan wax jannatu jublu ci jëj alaxira waxaat jannatu jublu ci jëj àddina wax jannatu ju ne ci montagne taw di ko roose mbaa lay wax jannatu ju nekk ci xur ndoxam yolde di ko roose yow loolu yaari ajana la ak ajana ji yëfar yi bëggul bëggoon wax yeneen ci bi ne ko nag ñu ko utal kon aljannatu moo di tool bu am garab yi meññ ndoxam yolde nekk fa di daw garab yëpp nekk fa loolu moo di aljannatu maxsadul janna loolu la bu ngeen demee àllaaxira loolu ngeen fay fekk maanal janna bi ne fii ci àddina maanaa boobu ngeen di fekk àllaaxira kullama rusiqu min amin samaratin risqan qaalu haada alladi rusiqna min qablu wa utu bi mutashaabihan wala um fi yaani fi fi jannati laaxirati waaw fi jannati laaxirati wala um fi aswaaji mutahharatun hum fi xaalidun jannatul axirati jannatul xuluud la du jannatul xuruuj jannatul axirati jannatu tanaum la du jannatu taabud jannatul axirati jan foofa takkaliif day wàcc nit ñi amatul wooral julli lu tax doo woor lu tax ma ne la julli nga bañ a julli lu tax nga sàcc te la naa woon lu tax nga jaar loolu amul alaxira ajjanay bul def nangam defal nangam lu tax nga def nangam lu tere ma lu tere defoo nangam ndax néew ma loon bul def nangam boo defee nangam danga nga fa génn boobu bokkul ak wala um mu bokkut ak kullama rusiqu min amin samaratin risqan qalu athara lati rusiqna min qablu wa utu bi mutashabihan wala um fiha aswajum tartum fiha qalidun jannatu laaxirati jannatu xuluud la jannatu aadama ja bu doon jannatul xuluud bi ca génn waaye nag ay boroomi xam-xam ñoo wax lii ma wax te lii boroom xam-xam yooyu wax loolu laa gëm te ñooñu boroomi xam-xam yi jullit lañu duñu boroomi xam-xam yi duñu ay chrétien duñu ay labbe te gëm naa li ñu wax li ma leen di laaj nag mooy ndax gëm loolu day tax a doon ab julit day teye doon ab julit wala day tax a doon ab julit man gëmuma ne aadama àjjana ca àjjanay asamaan la dëkkoon de aadama dañ ko bindee ca jannatul ma'wa inda siratil muntaha wàcce ko fa xalaw la sëpp fi ci suuf gëmuma loolu surutul iman nag lii dugg ci lislaam loolu bokku ci gëmuma ko nag <laughs> moom day leer moom min a wa fii a wa min a rek laa gëm min a wa fiha wa minha waaw li ma gëm daal mooy fii ci kaw suuf la yàlla tabaxee aadama fii ci kaw suuf la yàlla tabaxee aadama fii la ko bindee fii la sale ci moom ruu fii la ko dëkkale woon ci toolab dër bu ànd ak garab yu yuy meññ ñi di ko lekk di naan ca ndox ma dégg nga maam eh, mu ne ko nag léegi boo moytuwulee <laughs> boo moytuwulee seytaane dana la fi jëlee aljanna jajjaan ja am jaan iblis soppaliku jaan fexe ba dugg fa ak moom aljanna joojee nekkul nekkul jannatul jannatul mawa ja ca àllaaxira loolu mu ay borom xam-xam wax nañ ko boobu leer nañ te it nag gëm naa ko ba mu wér péng kenn mënut ma téem a gëm ko reetaan nag sabootee d'accord ma ci xamul dara lu neex waaye na ko wax loolu laa gëm gëwuma leneen te loolu moo wér ci li sama ngëm loolu moo ci nekk débaawuma kenn nag woowuma ci kenn nit ne gëmal li ma gëm su fekkee lii ma gëm nag day taxa doon yëfër ngeen jox ma dalil ma ma génn ci ma ne maa gëmoon gëmeet waaye loolu laa gëm góoma ne loolu kay lu leen naññ la ajjana ji aadama nekkoon fii ci ko suuf la nekk nekkul asamaan asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu imam suñu Cheikh Gueye ñu ngi lay baax te di la siyaare suñu siyaare suñu Mor Kare suñu Cheikh Sofi di siyaare it euh, suñu Moustapha Diop di siyaare suñu Cheikh ñu leen nuyu baax ak suñu oustaz Fat Fakka euh, wax dëgg yàlla waxtaan yi am na solo lool ndax xam-xam mi ngi ciy génn waaw mi ngi ciy génn waaye lii nga wax ni daal man de wax dëgg yàlla ci laa ànd mafhumul Qur'an daal buñ ko jëlee lépp dana leer ndax yàlla tudd dafa tudd àjjana ci ay yoon yu bëree bëri te àdduna la euh, comme inna balawnahum kama kama balawna ashaabal janna wadrib lahum masala rajulin jaxalna li ahadihima jannatayni ak comme ni nga leeral yeneen aljanna yi kamasali jannatin bi rubuwatin muy yu am solo yoo xam ne leeral yu ama am solo la te it wax dëgg yàlla ajjana moom ajjana ajjana ajjana joo xam ni dañ naan la bul laalee laalalee loolu moom ajjana yi àdduna la ajjana yi ëllëg moom moom amut frontière dañ la defal lii ak bàyyi lii waaw man daal lu la gëm ci ni nga ko waxee ci aaya bi minha xalaqnaakum wa fiha nu'iidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra waaw ci suuf si lañu leen binde suuf si ci lañ leen di delloo ci suuf si ci lañ leen di génne ca yoon ba waaw li ma gëm daal man mooy aadama teqali ko wut ak suuf si waaw ci suuf si la nekk ñu ci suuf si suuf si lañ koy génnewaat mbindeef yëpp it noonu maanaam nit ñi yëpp mbindeef yépp noonu man daal loolu laa gëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu